ñoom ñoo koy def pour bëgg a live bi wàññi doole bi wala saboter ko signaler ko ngeen xamee ko noonu yéen ñëpp il faut les bloquer systématiquement. on ñaare du ma temps di xool ay commentaires yooyu parce que mënoo di live di toppatoo ay commentaires dañ lay désorienté. donc bu ngeen ci gisee benn rek il faut le signaler rapidement ñu mën ko bloquer comme ça ñoom duñu mën a perturber suñu waxtaan euh, di leen nuyu yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay kenn ku ci nekk ci yéen mënuñu leen a lim macha allah di wax ne effectivement koo xam ne dugg na rek ñu yaatal ko ba ñëpp mën ci xaj ñëpp mën a teewlu ñëpp mën a Euh, ñu seq waxtaan wi laayante biir jàppalante ba mën a am ndax euh, lépp loo xam ne aussi mën ngeen ko def ba mu dëgëral live bi ba mën ko yaatal bañ ku ne mën ci jot ci TikTok bi ci Facebook bi ci WhatsApp yi fu ngeen ko mën a dagg-daggee dugal ko fa rek fexe leen ba dugal ko fo mu àgg ci doomu aadama yi parce que effort yiñ ci def gëstu yiñ ci def liñ ci perte ci temps yépp soo àggul ci ñu ëpp ci askan wi daanaka day nekk rek fekk ab àll bu kenn dëkkul nga tabax fa juma wala nga tabax fa église bu waxtu julli jotee doo gis kenn yow rek yaa koy yaa fay julli loolu nag amul njëriñ juma bu ñu koy tabax wala église dañu koy def fu am ay nit ñuy bu ñuy wax dañuy bëgg di wax wax yi di àgg ci doomu aadama yi ngir ñu mën a ndax jàngale yàlla ko njëkk ko def la jaagale ko ci jibril mu jàngal yonent sallallahu alayhi wasallam yonent bi jàngal askan wi yonent yi mu yónni yëpp noonu la ko defee yàlla moo njëkk a jàngale ndax nit ñi bu ñu jàngul duñu xam te ko xamul mënoo jëf kon xam-xam mi ngi ci kàllaama ci làmmiñ ci wax yëkkati sa kàddu loo jàpp ne loolu lu baax la wala lu dimbali askan wi wala lu dëggula lu jubu nga fexe yëkkati ko bari sa kàddu ca kaw wax ko ca kaw ba ñëpp dégg waaye naan nitu dëgg laa ci dëgg lay dox ba borom xam-xam laa tudd te booy wax kenn du la dégg da ngay tëju ci néeg loolu du xam-xam loolu leneen la borom xam-xam day wax ca kaw nit ku dëgg ku gëm yàlla da wax ca kaw ndax dëgg dong ngay wax jotu làqatu kuy wax dëgg jotu làqatu dëgg moom dee su ko wax ci suuf ci kaw nga koy wax képp kuy làq wax dëgg képp kuy làq dégg nga maam ni yëkkati lu jub di ko wax ca kaw moytu leen ko képp ku koy def moytu leen ko dëgg kenn du ko làq dañ koy wax ca kaw ndax askan wi mën a jariñ koy wax ci suuf ak tëj ci ay néeg gi di ngun nguni rek moytu leen ko kooku doxul ci dëgg day manipuler kon euh, na ko ñëpp xamandoo li fi xew ci semaine bi bari na ñu bëggoon ci defoon ak yéen ay waxtaan am na ma fi defoon barki démb wax ci waaye dafa guddi woon ma daanaka dama ko tënk dugguma ci détail bokk na ci li fi xew mooy seen conférence de presse boobu waa kër ñàkk jàmm defoon Benno Bokk Yaakaar góor jigéen ñi ndax bu leen fàtte ne ñu ngi ci seen weer weer mois de juin bi mooy mois góor jigéen ñi mois de juin ndax mooy juróom-benneelu weer ci at mi di xaaj bi. at mi fukki weer ak ñaar la xaaj bi di juróom-benn juróom-benn mooy six boobu six boobu dafa am doole six bi da ngeen naan chiffre de franc-maçon la chiffre de franc-maçon la franc yi amuñu chiffre dañoo dem Égypte ca suñu maam ya ñi tabax pyramide yi fekk leen ñu am xam-xam xam-xam bu kawe boo xam ne ci dañ sukkandiku xam-xam alam bi xam jaww ji xam ngelaw yi xam naaj bi xam jant bi xam astre xam univers bi xam ni ko yàlla tëggee suñu maamaati maam yi dëkkoon Égypte nekk ay nubien nekkoon ay xemit ay xemit mooy nit ñu xam nit ñu ñuul mooy ñun ñi tey ñaan ay kémit kémit kémit kémit am na ñu ko orienté ci wàllu religion parce que suñu maam yi jamono bi ñuy dund loolu ñoom religion bi ñu amoon mooy religion boobu kenn ku ci nekk ak sa jamono ak sa pas-pas waaye léegi islam bi ñëw na ginnaaw bi complété wu yàlla yónni yonentu sallallahu alayhi wasallam mu jàngal ñu lépp mat ñun tey jii ñun li ñu gëm mooy rasulullahi waaye suñu maam yi démb yi avant yonent bi di ñëw ñu ñu ñu dund ay ati ati ay junni junni at avant yonent bi di ñëw fa ñu tolloon ca booba jamono seen pas-pas yi foofu la tolloon donte benn yàlla bi leen doon jaamu mu yàlla bi fi nekk mosu fi jug benn yàllaa fi am ñoom nag daan nañ ko tuddee ay jant di ko tuddee lu ne di ko doon mandarga parce que ñoom seen xam-xam dañ ko daan mandargaal la jë soleil la jë sas yooyu yëpp xam yooyu Égypte daal fa la bàyyi ko fa la lépp bàyyi ko

dans l'humanisme bëgg nit di jariñ doomu aadama yi tabax ay pyramide di tabax ak benn civilisation bu nit ku ñuul koo xam ne ay junni junni at ba ñu koy tabax boobu yow sallallahu alayhi wasallam kenn ñëwagul tey civilisation ba léegi mi ngi fi Égypte adduna bi yëpp ngi ci yéemu li ci gën a mandarga yi di ko gën a taxawal mooy tey ji boo demee seen tombo yi wala nga dem Égypte tey seen pyramide yi nga xam ne ba léegi tubaab yi ñu ngi koy étudier ba léegi pyramide yi mystère la kumpa naka la ko ay nit mën a tabaxee ay junni junni at ci ginnaaw ci précision ci géométrie ci loi quantique physique ci lépp loo xam ne la loi de la pesanteur nga xam ne tey ñun ñi tey fi ñu toll ci xam-xam ñun tey suñu maam yi weesu woon nañ ko am ne junni at ay nit ñu ñuul ñoo ko def du ay tubaab de ay nit ñu ñuul tubaab yëpp lañ jàngee tubaab yëpp Égypte lañ jàngee mais loolu Macky Sall du leen ko wax kenn du leen ko wax amul benn programme bu nekk ci réew mi di ko jàng ñu leen ko jàngal bokk na ci xeex bi ñuy xeex fexe ba delloo si njàng moom nga xam ne mooy suñu cosaanu démb ak barki démb nga xam ne ba ñuy xam di man di jëf boobu tubaab amul boobu tubaab bi ñu ngi ci àll bi nekk ay barbar Cheikh Anta bind na ci wax na ci lu baree bare bare ñun ba ñuy civilisé di xam science di am xam-xam di sol ay yére di nekk des hommes cultivés am culture am art am civilisation am mode de vie am science am di tabax di def lépp ba ñu koy xam ay junni junni at boobu tubaab yi nekkaguñu fi bay xam tey mais loolu. dafa am lu ko gàllankoor ñu mel ne ay Macky Sall ki ñoom ñi toog ci boppi réew yi ak ñoom Abdou Mbaye ñoom la système ñoo ànd ak tubaab yi nekk ay tubaab yu xonq bañ njàng moomu yëkkati ndax njàng moomu kat day tax ni ku ñu xeeb mën a euh, am fierté ci boppam njàng moomu day tax ni ku ñu gëm boppam day tax ni ku ñuul xam ne moom mooy reyukaay bi waaye moom warut a rey kenn moom dañu ko war a rey ndax moom la ay maamam def jaloore yoo xam ne maamu kenn defagu ko. waaye diggante maam yi ak gerbaat yeeg sët yi tey dafa am lu fu dox mooy tubaab bi dafa ñëw jaxase lépp indi am njàng moo xam ne moom lay arrangé ay maamam lay yëkkati ñoom lañuy lépp lu baax ñoom ñooy rayukaay bi loole nag lañ bëgg mu dakk waaye li ko fi jële moo jële fi ñu mel na Sall njëkk ndax jóg ni yagar yagari naan yaa ngi dem Ukraine looy uti da ngay doxi jàmm yow Macky Sall Cyril bu Afrique du Sud euh, président Comores ngeen àndandoo lambal lambari ngeen dem seeti Zelensky Zelensky bi ngeen seeti ba ngeen yéeg àgg yéen ngi ko fekk mu sol t-shirt ak benn treillis de guerre taxaw ne day xeex ak Poutine David ak Goliath donte xam na ne bu ko Poutine ëffee mu dee waaye ma ngay taxaw nekk ab patriote di xeexal Ukraine donte moo tooñ waaye nee na moom day dee day xeex ndax dañ koo manipuler ci ginnaaw defoon naa fi live ci ginnaaw expliquer leen pourquoi Ukraine nekk en jeu lan moo tax àdduna bi yëpp occidentaux yi ànd ak Ukraine di ko ngemm dafa am benn guerre de civilisation bu nekk ci ginnaaw ñi nga xam ne daañu lire souvent di gëstu di jënd ay livre di lire di yokk seen xam-xam di gëstu bu ngeen seetloo dem ca livre bi nga xam ne ki nga xam ne mooy Samuel Huntington defoon na ko vers les années deux mille deux mille deux mille un le choc de civilisations de Samuel Huntington maa ngi fàttaliku bi ma ko jëndee en deux mille deux mille un di ko lire. mangi ngi Abdou Diouf ni bobo ci benn dajé bu amone Paris au niveau de l'académie des sciences d'outre-mer Abdou Diouf nawoon fa ma dajé fa ak mom ñuy waxtaan ni après ma yor livre bi mu ban livre ngay lire ma wan ko ko le choc de civilisation de Samuel Huntington mu da dama ah ok après mu daal di ma koy dédicacer moom Abdou Diouf en 2001 2002 je me rappelle livre boobu boo ko liiree da ngay xam li xew tey choc des civilisations boobu moo tax tey lii xew Ukraine nga xam ne wax na ko vingt ans vingt cinq ans avant tey ñi ngi ci biir choc des civilisations boobu parce que civilisation occidentale bi dafa bëgg taxaw nekk une civilisation universelle ci wàllu ngóor jigéen ci wàllu donc lépp luy seen euh, ay pexe rey doomu aadama yi ci wàllu santé ci wàllu yëpp dañoo infiltre tous les aspects nag l'organisation mondiale de la santé OMS aujourd'hui est phagocytée dañ ko infiltrer tey ay ñoom Bill Gates ak ñoom seen fondation Gavi programme de élargi de vaccination yeeg santé de reproduction yi dugg Afrique ak ñàkk yeeg yëpp poson dañ ci def pour bëgg ngeen jaasi nit ñi duñ judd ci loolu mooy programme bi loolu mooy nouvel ordre mondial bi Macky Sall waxoon ci Covid bi ci mbas mi ne nañu waajal ñun ñëpp dugg ci nouvel ordre mondial bi nouvel ordre mondial boobu moo tax ñu dagale juróom benn président wu africain yóbbu leen jàmm te ñoom ñu koy dox ñëpp kenn amu ci jàmm sa réew kenn du Égypte dictature dafa am Sénégal Macky Sall mi ngi jéem a teg dictature am boo demee Congo dictature fa am foo ci dictature fa am ñoom dictateur yi parce que démocratie bi moo bokk na ci civilisation du nouvel ordre mondial tuer la démocratie parce que démocratie ñoom dañ ko doon wax wax mais gëmatuñ ko enlever la démocratie pour teg une dictature hitlérienne ce sont des fascistes et des nazis Macron Macky ñoom ñëpp ci Putin Poutine xam na loolu mu opposé leen volonté seen bëgg-bëgg boobu nga xam ne moom lañ bëgg a nas teg ko ci kaw adduna bi te mooy lépp luy iblis bëgg seytaane bëgg ko lépp luy xeex pas-pas luy xeex diine luy xeex wàllu pas-pas moo xam islam la moo xam catholique la moo xam protestant moo xam lépp loo xam ne pas-pas la jëmale ko ci yàlla nit ñi gëm ko pas-pas yooyu lañ dañ koy daj yàqu ndax loolu mooy mission iblis te ñoom ñoo taxaw ne dañ ko jëmal foofee defoon naa fi live yi mois ci ñi ñooñu war nañoo xam ne defoon naa fi live bàlle ma damay xool commentaire yi parce que sànq ba léegi maa ngi wax xooluma commentaire yi parce que léeg-léeg am ñu mer na waaye ñu ngi commenté doo liir naa leen ne leen civilisation occidental bi ñi ngi le peuple khazar le peuple khazar mu nekk les les les les les le peuple juif mais pas juif israélien dafa am juif israélien ak ay juif khazar dafa am ñaari façon juif yahoud yu am yahoud yi nga xamné ne ña nga moyen orient Israël ak yahoud yi nga xamné dañu nekk dans lextrême orient wala bok ñu nekk dans euh, l'Eurasie moy ñi nga xamné ne ñoo nekk côté Russie ay Turkmenistan, ay azerbaïdjan ay pakistan ay turki dëkk yooyu ngeen gis ñu tudd ay muy dëkk yi nga dañ dans euh, la autour de la mer Caspienne wala au niveau de Bakou dëkk yooyu nga ne dafa amoon ay ay ay yahud yoo xam ne ñi ngi jóge woon vers l'est nekkoon ci euh, nga euh, la la grand empire euh, russe sarien nga xamne ñom dañu mas nek des des gens de foi catholique pure et dure d'ailleurs boo demee Russie le catholicisme c'est de l'orthodoxie c'est donc l'église orthodoxe ñom dañu nek des fondamentaux yo xamne dañu am foi en Jésus am foi en Dieu dañu am ay pas-pas loolu motax ñom ñoom mosuñu ànd ak nga xamne ñoy li qu'on appelle les faux juifs dafa am ay juifs yu vrai ak ay faux juifs les Khazars ce sont les faux juifs ñoom rek fay ci seen maam lañu ay maamu Hitler lañu.

ak ay le sacrifice humain la pédophilie loolu dafa bokk ci li nga le dieu Baal Baal en Suisse créé la ville de Baal. Baal en Suisse c'est la capitale du monde bancaire au monde la réglementation bancaire se fait au niveau de Baal en Suisse ce n'est pas pour rien que la Suisse est la capitale économique du monde. Ce n'est pas pour rien que la Suisse est un pays neutre. Ce n'est pas pour rien que la Suisse est un pays paradis fiscal. La Suisse a été créée par les Khazars. bi une Russie d'après avec l'empire Sarien. ba ñu ak dans cette zone vers la vers la Russie dañ leen a ñu dans l'empire russe saharien, ñu ñu remonter vers l'Europe bi ñëwee dans dugg Hollande dugg Suisse dugg France dugg Angleterre ñoom ces faux juifs là ñoom ñoo ñëw dugg biir Europe monopoliser ko créer ay guerre dugganteeg les rois yi ñu fi fekkoon dugganteeg ñoom indaale alal joo xam ne dañ ko sàccoon ca ba ñuy dëkk Russie daan dogale ay nit ñi daan def commerce bi ñi daan di di couper les di sàcc seen alal yi di seeg seen doom yi di sacrifier di di di ramas seen doom yi di taal ay sëb di ci sànni xale yi di ko sacrifier pour seen jéego nga xam ne mooy la jéeg baal am doole parce que doole boobu moo leen may doole ñoom les faux juifs muy histoire boo xam ne waxoon naa leen ko fi su ma fekkente ne juuma am na ñoo xam ne ñi may topp déglu woon ngeen ko loolee ci la ñëw ba créer ay guerre la première guerre mondiale ñoom ñoo ko sooke la seconde guerre mondiale ce sont toujours les mêmes Hitler ci seen bopp Hitler seen mbokk la Hitler est un juif kazari la première guerre mondiale xam nga le coup d'état xam nga du du du du du du du comment dire bi nga xam mom lañu mom lañu mom lañu mom lañu mom mom lañu def ki nga xam ne moo euh, le le le comment ça s'appelle encore j'ai un trou là bon dina jikkaat euh, ba beaucoup provoquer première guerre mondiale bi ñoom ñoko def al Hitler ci ñoom la bok la seconde guerre mondiale ñoom ñoko provoquer provoqué ce sont les mêmes hein? ils ont créé les guerres pour créer une crise financière économique kon ñom ils ont des réserves en or dañuy piller di sàcc am nañu alal ñoo dugganteeg buuru Europe yi dugganteeg ñom Suisse France Angleterre fépp moo tax nga gis leen ñu am ay doole ñoom ñoo ànd nag daal di daal di nag dugg nag infiltré Vatican dugg Vatican infiltré ko Mais, légui, ñoom les Khazars ñoo dugg Vatican téye ko le roi d'Angleterre le royaume d'Angleterre le royaume de France yooyu yëpp ñoom ñoo nek, ci même Napoléon Bonaparte ci ñoom la bokk ñoom ñëpp ce sont les descendants donc des Khazars donc les ces peuples faux juifs bo, xam ne ñoom mooy ñoom tey jii boo États-Unis ñoom ñooy immigré après ñu nag ñenn ñu dugg nak ci catholicisme bi ñi dugg ci protestantisme bi ñu créé la seconde guerre mondiale am ñu immigré wu nag dem aux États-Unis bi ñu aux États-Unis après la seconde guerre mondiale ils ont créé les institutions de Bretton Woods banque mondiale FMI jël dollar bi tek ko le dollar n'appartient pas aux Américains le dollar appartient au peuple kazakh li Poutine xam na ko chinois yi xam nañ ko ñoom xam nañ ko les BRICS ñi ngi taxaw di xex ñu téy aduna bi nak indi ay bëgg nak di doxal doxal nañu pendant presque un siècle wala un demi siècle wala quatre vingt ans depuis la seconde depuis oui même presque ëpp na ko léegi seen civilisation bi dafa nekk di toucher à sa fin dañu nekk dañu sës ci mbir bi léegi il faut que ñu inventer benn nouvel ordre mondial parce que li ñu doon def yëpp puus nañ ko ci tooñ te ko def na ci biir démocratie xeex ak Hitler mais ñoom ñooy maanaam ñooy tullu ñooy mbalax ñooy sapeur pompier bi ñooy pyromane bi ñooy taal daay gi ñoo koy fay ñoom loolu mooy seen technique il faut ngeen xam ko bi ñu demee ba ci biir nag. ñu dugal ñu dugal ci nag léegi nag ay xam-xamu franc-maçonnerie dugal ci ay pexe parce que dañoo yeewu nag attention attention man ngeen leen a critiquer man ngeen leen a wax lu ne mais ci xam-xam la ñuy dox doole yi ñu am ci àdduna bi parce que dañuy dox ci xam-xam nekkuñu ay du ñu ay taalibe ci xam-xam la ñuy dox ku ñu gis xam-xam ci àdduna bi daañu ko jëli jàng ko fexe ba xam ko bu ñu ko mënta jàng mënuñu koo xam yow mi am xam-xam daañu fexe ba jéem laa korkoroon nax la nax la nax la ba dugal ak seen biir ngir indaale sa xam parce que xam nañu àdduna bi xam-xam moo ko doxal wax nañ dëgg waaye ñun dañu dox ci pas-pas sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi mais xam-xam zéro moo tax du ñu dem fenn ñoom bu ñu nekkee ñett ñu nekk junni ñoom ñett ñooñu bu ñu yoree xam-xam ñooñu yilif ndax xam-xam moo yore mooy di moo yilif bi ñoom juif yi ñoom kazaar yi ñoom ñëpp fex nañ ba téye àdduna bi ci xam-xam di doxal nag seen tappale parce que ñun ñi nga xam ne ñun nee nañu duñu tappale duñu dox ci xam-xam loolu mooy problème bi

génn da du du monde informatique nga xam ne Microsoft lañ ko xamee woon monde informatique mu génn foofu jël congé am bàyyi jël fondation bi bàyyi ko jël fondation bi di ko doxal ubbi fondation bàyyi société bi ñeneen di ko gérer pour mën a am temps consacré ko ci lan pour infiltrer le monde de la santé tey gis ngeen ñu ngi dans des guerres bactériologiques dans des guerres yoo xam ne de de transgenre góor jigéen homosexualité pédophilie loolu lépp. c'est le programme Bill Gates ne léegi man damay jóge ci monde informatique bi dugg dans le monde médical parce que ñaar yëpp ñoo bokk benn connotation ñoo bokk benn argumentaire ñoo bokk benk benn ni ñuy doxee mooy l'ordinateur c'est comme un être humain dafay am xol am deret am nerf am lépp boo ci tàbbalee virus mu yàq ordinateur bi moo tax ñu créer ay antivirus antivirus mooy médicament yi ñuy naan mooy piqûre yi jël Bill Gates na ni ma xamee monde informatique léegi damay dugg dans le monde médical ci wàllu wér-gu-yaram fexe ba infecté dugal ay virus ci biir doomu aadama yi ba nga xam ne suñu waree jur daañu jaasi duñu wa duñu jur fexe ba nax leen fexe ba changer seen civilisation fexe ba transformer seen ay ADN comme ni ñuy dugalee virus ci biir ordinateur mu yàq ordinateur bi noonu laay fexe man jël sama alal Bill parce que maa ngi ci Kazari laa bokk naa fexe ba jël sama ay milliards yu ma am ci informatique bi def ko ci biir santé bi ci wàllu njurukaay bi moo tax Bill Gates ci ñaari mbir dong dong dong dong dong lay def alalam ci wàllu wér yaram mooy fan ci njurukaay lépp luy santé de la reproduction ak lépp luy vaccination parce que vaccination ci ci deret lay def deret donc suñu deret bi la bëgg yàq moom Bill Gates waaye tamit lépp luy njurukaay mooy santé de la reproduction sëy jur loolu nee ci lay def alalam parce que dafa bëgg a dakkal jur gi jur ji jum Afrique yi ñuy juddoo nga bëgg mu dakk doful de xam nañ bu baax li ñuy def programme bu ñu décidé ca kaw nag les urloges urloges mooy loge yi nga xam ne les loges maçonniques yi nga xam ne ñoo gën a ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo parce que dafa ay loges yu ngeen xam ni mais loges yi tamit dañoo bokk ci loge yu mag yi loge yu kàngam yu mag yi lu ñu tuddee les urloges waaw foofu foofee nag foofu la ñuy décidé mbir yi mais loolu yéen xamu ko Sénégal bari xamuñu yooyu ñoom yaakaar nañ ne affaire bi dégg nga maam kërë kërë loolu nag mooy du garaaw yëpp su ma juumul waxoon naa ci defoon naa ci live ba expliquer leen que pour ngeen xam ne li xew ci réew mi Macky Sall di ko def dafa am fu mu jógee ci kaw la jógee ci kaw a kaw tubaab yi tubaab yooyu di ay franc-maçon yu ci bari ñoom ñoo jël bëkk démb ñoom Macky Sall ak ñoom ñi Union africaine tubaab yi ñoo ko créé Union africaine du africain ñoo ko créé du africain ñoo ko créé mbootaay bu ngeen gis Afrique français nekk ci ginnaaw ak américain yi ñoo ko taxawal wala chinois yi. Afrique amuñu mënuñoo bokk benn nekk africain mënuñu ko bokk organisation bu nekk Afrique bu ngeen gis tubaab yi ñoo ci def seen alal ñoo tabax siège ba ñooy financer fonctionnement bi tubaab yi pour di leen boole tënk leen ne leen yëkkati ak di leen moom ñoom la gën a arrangé parce bu ñu bëgg a jàllale benn mbir foofu lañ koy négocier gi doo dem seeti dëkk bu nekk day metti da nga leen tàkk ñoom ñëpp foofu dagale leen wax ñoom ñëpp ñu d'accord nga def sa lobby ñëpp signé soo leen bëgg a yónnee Ukraine da nga jël juróom-benn si ñoom Macky Sall yembar yooyu na Union africaine yóbbu leen ñu lay liggéeyal mais Union africaine amalul njëriñ Afrique yéen ñu may déglu yéen a gën a xam CEDEAO amalul njëriñ Afrique ndax bu Macky Sall yi rey doo dégg CEDEAO su IBK euh, euh, di def lu ko neex doo dégg CEDEAO bu Alpha Condé def doo dégg CEDEAO bu Alassane Ouattara def troisième mandat doo dégg CEDEAO doo leen dégg de waaye président boo ci jàpp bu IB bu bu bu bu bu bu bu bu Assimi Goïta defee coup d'état wàcc IBK CEDEAO jóg. ay wuyu syndicat bandi lañu France moo leen di manipuler waaw su Macky Sall def nii Sénégal doo dégg CEDEAO de mais bu ñu demee ba jàpp Macky Sall ba coup d'état ko ba jàpp ko ci ngay dégg CEDEAO jóg way euh, il faut retourner à l'ordre constitutionnel patati patata mais su Macky Sall rey ak di forcer di jalgati constitution bi doo dégg CEDEAO de su ko Ouattara di def doo dégg CEDEAO su ka Condé di def doo dégg CEDEAO ba ko IBK di def déggoo ko de waaye ba Assimi Goïta ñëwee Doumbouya Eh, Traoré xaw ma ki nekk naa ñoom ñëpp ñu def nga dégg CEDEAO jóg yagar yagar yi maanaam loolu France moo nekk ci ginnaaw ñun moomuñu ko CEDEAO baaxut amul njariñ Union africaine amul njariñ seen siège ba ca Addis Abeba chinois yee ko tabax ñoo koy financé CEDEAO tubaab yee koy tabax ñoo koy financé donc ba léegi moomuñu suñu bopp xeex bi ñuy xeex dafa sori te yàgg te waaye mënoo tëb di xeex pour Afrique te yow ci sa beew yow ci fi nga teg sa tànk mënoo koo faa xeex kenn ku ci nekk fi nga dëkk foofu ngay tàmbalee xeex bi sénégalais yi xeex leen moom seen bopp maliens yi ñi ngi xeex pour moom seen bopp kenn ku ci nekk yaa ngi xeex bu ñu xeexee ba am ci ab lim bu takku ci ab dëkk ci ci yi Afrique ci réewi Afrique yi buñ ci amee lim bu takku ñu bokk ay bëgg-bëgg ñun ñëpp soo ba daa ngi taxawal mbootaay yi ñu bëgg mbootaay yi nga xam ne loxo France du ci nekk loxo chinois yi du ci nekk loxo kenn du ci nekk ñun ñoo koy nas ci suñu coobare bopp def ci suñu alal ci suñu coobare bopp tabax suñu siège ci suñu coobare bopp jël suñu ay nit ñu bokk ak ñun du kenn rax ñu def ko wax ne lii la ñu bëgg fii la ñu jëm te kenn du mën a weñ suñu loxo tant que àgguñu foofu duñu mën a dund ci ko suuf si suuf dañ ko ràbb teg ko fi yàlla wàcce fi doomu aadama yi ni ñi leen di reen ba fi yàlla wàcce ak aadama ak aw ba léegi nit ñi dañuy reyante ëpp doole ku ëpp doole war ko ku ci utiwul doole doo dund ku jàngul xeex dañ lay def ab jàmm bés bu nekk man leen jóg leen ngeen jàngi xeex lu waaye di jàngi xeex ci gën su ma koy wax dama ko xam àdduna bi ku mënta xeex du fi dund su defee nag am na am ay sëriñ sëriñ si tamit ci kasaare lañ bokk seen seen yenn sëriñ yi ci mafia bi lañ bokk ci système bi dañuy toog muy dox ñu lay neloloo ko yàlla lii nit du xeex ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ñu ci baree bari bari ba ma xoolee seen jukki yi ñu ci bari ñu ngi am tey ji ay franc-maçon am na sey ay ponkal yoo xam ne tey ñu ngi leen tudd fii ci Afrique leen tudd naan diwli diwli diwli diwli mais ay franc-maçon lañ ñu ngi ci biir ñoom ñëpp franc-maçonnerie nag xam-xam bu set a ngi ci xam-xam bu salte ngi ci ay nit ñu intelligent ñi ngi ci ay nit ñu bon ñi ngi ci lépp a ngi ci biir parce que ñoom dañoo am doole te doole gi ñu ngi ko jëlee ci xam àdduna bi ni muy doxee xam le fonctionnement et le mécanisme de l'univers parce que yàlla bindu dara ci hasard jaww jeeg ngelaw leeg géej jeeg bis yeeg guddi beeg lën bëccëg beeg góor yeeg jigéen ñeeg ndaw ñeeg mag ñeeg lu ki nekk dafa am lu muy signifier ak lu muy tekki ci dund bi loolee xam-xam la léegi ñun ñi gëm yalla bu ñu xamul loolu ñoom ñi gëmul yalla ta xam ko dañuy tuddu ci secret bi chiffre yi ngeen di gis ay 6 66 666 six cent soixante c' est des chiffres c' est des c' est des algorithmes yoo xam ne dafa am signification am ay énergie ak ay forces yu muy dégager selon le moment le temps le jour la période le sexe le genre yooyu yëpp jamono bu ki nekk dafa am jamono boo xam ne dafa am ay forces énergétique yo xamné da fay dégagé wu jaww ji moo koy génne soleil bi selon position donc globe bi selon donc rotation bi bi dem selon temps bi selon goudi gi bëccëg bi lëndëm gi lèr bi xalé bi mag bi jigen bi góor bi yooyu yëpp tàngoor beeg sedd bi yoy yépp dafa am njeexital ci dund bi dafa am ay ay énergie yu muy dégager yoo xam ne ay ondes yu muy yoo xam ne c'est des ondes positives ou des ondes négatives dafa am ay forces yu ciy jóge yoo xam ne boo ko déggul mënoo ko xam ñoom franc-maçon xam nañ loolu jàng nañu yan jamono moo jamono moo baaxul pour xeex ban jamono nga mën a am énergie bu baax ban jamono nga am énergie bu négative ban gisaane fuuf loolu mooy seen doole parce que dañoo dem ba xam secret yi baree bari dañ koo xam ci lan ci gëstu ndax yàlla moo gëstuloo ñëpp yow sallallahu alayhi wasallam jàng la ñu gëstuloo ñu mais ñun duñu gëstu da ngay am 70 ans ñun yaay xaalis bi jàngoo demoo fenn kenn tojoo fenn bëgg jiite ay million nit tegul ci xam-xam duñu dem fenn duñu dem parce que parce que bëgguñu xam-xam waaw li ñu fonk mooy mag nit di kilifa moo la mag bu fekkee àdduna bi yëpp mag dong moo fi qualité pour nga a jiite mbooloo mag waaye jiite woo mbooloo ci xam-xam jiite woo mbooloo ci ragal yàlla jiite woo mbooloo ci bëgg a tabax dëgg jiite woo mbooloo ci lu dul yaa fi mag mais dañuy yàgg noot dañuy yàgg nekk ay jaam duñu dem fenn duñu mas soqali réew mi du mas a dem te ëpp ci askan loolu lañ gëm li ñu gëm mooy diw mooy xalif bi parce que moo mag kese mais borom xam-xam bi kenn faalewu ko fuñ jëm fan lañ jëm ba defee ñaan franc-maçon franc-maçon franc ñoom ñi doxal lu ngeen leen mënta yàq ñi ngi doxal fexe nañ ba téye a bi di ko doxal ci seen xam-xamu bopp donte seen xam-xam bi xam-xamu seytaane mais ñi ngi koy teg li ñu bëgg ñoom ñi ngi ci am nañu fulla am fayda am alal am xam-xam ñi ngi ci wér-gu-yaram bi ñi ngi ci science bi ñi ngi ci technologie bi ñi ngi téye àdduna bi yëpp di ko yóbbu fi fi leen soob donte fañ koy bëgg a yóbbu ñun arrangé wuñu mais ñun ñi lànk loolu ñun ana suñu xam-xam ñun ñi lànk ñooñu ñun lu ñu bëgg ñun ñi lànk ñun ay taalibe lañ ay làppato lañ sëñ bi lañ gëm sëñ bi xamul fu jant bi fenkee sëñ bi xamul nu àdduna bi tourné sëñ bi xamul force yi ak faiblesse sëñ bi xamul loolu ñu topp ko fu ñu jëm duñ dem duñu dem wax ji du neex parce que dëgg la du ñu dem màggale ki gàmmoo ko cant ki mbëkk ki daanoo ko est-ce que affaire ay kenn xamut yoo xam ne du xam-xam jamono boobu franc-maçon yaa ngi dugg di tëju di def ay lël def ay réflexion yu profonde yu sàkku xam-xam naka la ñuy def ba noot làppato yi duñu ay nit seen i sëriñ dañu gëm la ñuy def ba noot leen dañuy wul di jël seen i alal seen i pétrole seen i di ko lekk di tabax suñu koom-koom bu baax bàyyi leen ñoom ñuy dee ñu ay nit naka la ñuy def ba noot leen parce que ay bàyyi ma lañ parce que yàlla mos ni mu neen dem leen jàngi xam-xam ji leen seen xel fekk ay màgg di xubidaas def leen ay xalif topp seen ginnaaw di leen comme ay yàlla ñoom franc-maçon ñu ne ñii duñu ay nit nañu leen nax jël seen alal ñun dundee ko bàyyi leen ñoom ñuy dee li li fi am

Ukraine États-Unis moo nekk ci ginnaaw CIA Union européenne Macron fi mu toll nii Ukraine la gën a bëgg français ñoom ñëpp ñu ngi seen alal jàppale ukrainiens yi parce que guerre de civilisation guerre de seen cosaan la seen yàlla yi baal baal bi nga xam ne moo nekk Suisse ñoom Europe gépp a takku tey ànd ak Ukraine te Ukraine xam ne mënut a Russie moom xajul ci Ukraine waxuma la Ukraine waaye àdduna bi yëpp Poutine xajul ci ñoom waxuma la ak ñi ngi xaru ñi ngi wër-wër fu ne nag ñi def lu ne ñi ngi jéem a dal ci kaw Poutine Poutine nag nag parce que Poutine xam na loolu Poutine moom la ay orthodoxe lañ moom nee seen tappale yi seen nguur jigéen yi ak seen xeex bi ngeen xeex ànd ak Iblis man du dugg sama réew sama doole laa yor ku yëngu ma rey waaw Ukraine nag moom mën leen a muus ak ba ña fa nekk nekk ay russe des russophones am làkk bi am civilisation bi nekk dans le sud wala boog nord si euh, le le le le le le le nekk ci ne nekk ci ci frontière Russie bi nga xam ne ñu bare bare bare la ñu ñoom nga xam ne c'est des lusophones ou bien les les russophiles ñoom dañoo bëgg des ci biir Russie parce que Russie dafa yaatu woon Ukraine yëpp ci biir lañu tubaab yi ko tas ak OTAN américain yi fexe ba génne dëkk yu bari tas la fédération de Russie daal di leen génne ñu am seen ay indépendance ñu promettre leen ne dañu leen dugal Union européenne avec l'élargissement de l'Union européenne vers les pays de l'Est ñu ne kat léegi OTAN mooy nekk seen wéeruwaay ci walu gànnaay ci walu armée OTAN tamit and ñom di pousse ñu pousse nak ba accès ci frontière Russie Russie da leen taxaw accord yu ñu en 2012 2009 sur le le l'élargissement dañ ñewon d'accord on lève le pied sur le la course vers l'armement sur donc tout ce qui était crise entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Est. on va faire ce qu'on appelle la perestroïka donc la politique donc de de la désescalade ndànk avec donc ki nga xamne moy euh, Gorbatchev ak euh, Boris Yeltsin euh, ñu daaneel le mur de Berlin en quatre-vingt-neuf pays de l'Est yi commencé moom seen bopp ñu mu am benn genre kal accalmie xaw a sedd waaye ndekete booba OTAN day naxaate li ñu bëgg mooy pousse. di pousse di jël pays de pays les anciens pays donc de la fédération de Russie yi génn yëpp jël leen Union européenne financé leen préparé OTAN pour que ñu mën Russie ñu ba isoler Russie war ko ndomba ba nga xam dootul yëngu pour daaneel la fédération de Russie bi nga xam ne daanu woon na waaye sax li nga xam ne mooy l'état russe nga xam ne moo ci des nañ ko nañ ndomba léegi ba te loolu bokkul woon ci accord loolu accord yi Euh, bi ñu signé les accords donc de de de de de détente dañ ne woon il y a des limites donc il faut pas autant di continuer parce que bu len fàtte autant dañ ko taxawal le traité l'organisation du traité de l'Atlantique Nord après la seconde guerre mondiale américains ñoko taxawal biñu libérer libéré Europe dañ ko taxawal mais biñu ko taxawalee tamit le bloc de l'Est dañ def ñam tamit suñu ko le pacte de Varsovie mu nek un bloc de de militaire bu puissant bo xamné tous les pays satellites qui étaient autour de l'URSS ñoom ñoom it ñoo am sen ben axe seen ben organisation militaire de défense biñu ñu le pacte de Varsovie euh, dem après voilà la guerre froide euh, après 45 jusqu'à 1989 la chute du mur de Berlin euh, le renforcement des deux blocs Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest l'indépendance de certains pays donc qui faisaient partie du bloc mieux pour gagner l'indépendance mais américains il y a di liggéey pour bëgg a pousse def benn ce qu'on appelle le le containment le containment de Truman Ils ont fait ba contenir fexe ba mëdd fexe ba tëj truc, ba nga xam ne communisme bi doon américains yi moom li mu gën a bañ ci àdduna communisme l'idéologie communiste américain pour ñoom ça c'est l'enfer donc loolu dafa bokk seen idéologie politique pour xeex Russie ba daanal ko ba néew doolam mais Russie néew te xeex yàlla mii nga xam ne moom dara tawu ko ci la créé ku mel ne Vladimir Poutine mu xam loolu lépp daal di jëlu si nag jël Russie nag téye ko na ñun dañoo am aada amee cosaan am suñu ay maam yoo xam ne yàgg xeex Russie nekk dëkk bu am jaloore bi ñuy xeex deuxième guerre mondiale Russie moo jóge bloc de l'est bi ñëw vers l'ouest euh, américains yi ñëw jóge euh, bloc ci euh, côté côté côté bi ñëw ñoom ñaar ñoo ñëw anglais yi jóge au nord français yi ñu ñëw daje pour mën a tànn mën koo xeex

dañu dem ba mujj jamono ñi àndoon di xeex donc le fascisme et le nazisme de de Mussolini et de et de et de Hitler tey ñoo ñëw léegi bi xeex boobu jeexee ñoom ñaar ñi àndoon di xeex ñu duwal ñu duwaloo léegi ñoom ñaar kii ne man communiste la kii ne man libéraliste euh, libéral la américain yi créé ay bloc anglais yi dugg général de Gaulle dugg dans un premier temps mais général de Gaulle c'est un souverainiste il faut que defal leen tuuti histoire ngeen xam le général de Gaulle à l'époque il n'y bi mu de France en guerre après donc là d'ailleurs aujourd'hui c'est l'appel du 18 juin aujourd'hui on est le 18 juin l'appel du 18 juin 1940 le général de Gaulle à Londres Allemagne yi dugg France ne dañ koy noot comme ils ni France duggee c'est Afrique ne dañuy noot ak ay française am Mali ne ko génneen mun a génnuma ku nekk ko génneen pourtant les américains yi duggee France Ils pas atte en France dañ koy dañ koy jàppale ngir Hitler génn booba général de Gaulle dafa taxaw daw dem Londres ni ma def la doon def di wax ci rajo Londres BBC français yi xeex xeex leen xeex leen France kenn waru ko noot ndax dëkk bu yàgg la France dafa yàgg a nootaate Afrique yëpp France noot na ko kon tey bu ñu bu ñu nootee musiba am gàcce day am jóg leen xeex français yëpp xeex américain ñëw anglais ñoom ñëpp ñu jàpp ci def seen ay euh, def donc def seen benn bloc xeexak ak Hitler Russie ñëw jàpp ci Russie tamit bokk ci ñu xeex ak Hitler ba daan Hitler tey jii mooy journée commémoration 18 juin. l'appel du 18 juin 1940 nga xam ne général de Gaulle moo ko defoon ba France man cee am ndam tey maa ngi taxaw fii di wax nekk ci bitim réew di wax Sénégal di leen xeex Macky Sall am yaa ma war a ñëw xeex si yow yow foofu ngay toog di wax kër rek parce que ay làppato lañu parce que xamuñu ne xeex du ñëpp ñëw xeex kii day wax kii di xamb kii di togg kii di yàq kii di faj kii di ñaw kii di baare kii di kenn ku nekk ak li nga def ci xeex waaye buñ la waxee nga ñëkk gis sa bopp ne kaay xeex. am na ñoo xam ne seen wax moo gën a gaaw moo ëpp solo dem nekk terrain bi di xeex kenn ku nekk ak li ak ak ak fi nga ma ne waxi général de Gaulle googu moo tax France tey kenn nootu ko ñu allemand bi ñu demee ba am ndam bi ñu demee ba am ndam waaw damay xool léegi damay damay sàcc léegi di xool waa l'endiguement mooy le containment ça c'est Truman le containment de de Harry Truman président des États-Unis moom dañu teg benn doctrine sur le le l'endiguement effectivement le containment Kouakou Henry Truman moom ci ko ci président am lañ ko théorisé aux États-Unis avec la CIA pour voir comment on peut donc circonscrire naka lañ mën a tënkee tëj ba le communisme de law parce que effectivement même après la seconde guerre mondiale on a créé les institutions Bretton aux États-Unis banque mondiale FMI waaye bi ñu demee ba ci biir ñu gis na léegi kat ñi àndoon di xeex pour daal Hitler Hitler dee na Mussolini dee na léegi bloc boobu dee na fascisme nazisme waaye léegi dafa am beneen xeex boo xam ne il faut que ñu xeex ko ñoom occidentaux yi muy lan le communisme léegi te pourtant bañuy xex fascisme ak nazisme ñom ñëpp andon àndoon ñu communisme ñu libéralisme libéralisme communisme moo russe ak américain ñëpp ànd waye bi ñu dané fascisme bi donc de de de de de de de de de de Mussolini en Italie et le le le nazisme d'Hitler yi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon a ànd dañ ne léegi kon noonu bi moom dee na waaye am nañ beneen noonu boo xam ne mi ngi suñu biir ñun dañoo noonante ñu ne xaa ñu ne waaw ñu ne libéralisme bi day xeex communisme bi léegi nag à partir de 45 ñu créé banque mondiale FMI 47 48 ñu créé l'État d'Israël avec le, les Nations Unies ñu créé yépp teg ko dé faj amon na société des nations SDE mais comme efficace après la seconde guerre mondiale gis nañu seconde guerre ñu na légui dañ créé société bu gën a am doole la société euh, la société internationale muy le le l'organisation des Nations Unies ñu taxawal ko créé État d'Israël en 47 48 yóbbu israéliens yi yóbbu leen euh, tey jii ñu tuddee Palestine ñu fekk fa Palestine nga xam Palestine la ñoom ñoko mom moom seen i maam ñu ñoo ko di ko xëccoo ñoom ba li ki xew xam ngeen ko dañuy bañ mu guddou nous, tek nañ légui nak dugg dans le cadre de la guerre froide Les nak prennent nañ seconde guerre mondiale guerre froide guerre froide moy le bloc de l'est le bloc de l'ouest le pacte de Varsovie le pacte euh, et l'OTAN l'OTAN moy les américains les français anglais les occidentaux le pacte de Varsovie donc l'empire russe bloc de l'est xeex idéologiquement guerre froide course vers l'armement bombe atomique ku nek di le général de Gaulle taxaw ne attention ñun France kat yéen a ñu àndoon yéen le ñu jàppale ba ñu wat suñu bopp ma taxawon taxawoon di wax waye nak waaye nag xeex bi jeex na gañe nañu France moom moomaat na boppam waaye nag France nag du bootu ci kenn nag France du bootuwul ci ginnaaw kenn am réew mu rëy la réew mu am civilisation ñun suñu maam maami dañoo liggéey amuñu ay maami làppatu xawoon nañ ñoo jekku yuuxu naaw woote wàllu ñëw ngeen ñu wàllu nag waaye nag takkaat leen seen i bagage américain ngeen ñibbi nag génn génn leen suñu réew nag ñoom suñu bopp nag ni Assimi Goïta tey taxaw te wax li Assimi Goïta tey taxaw ne France na génn Mali général de Gaulle ba ñu ko jàppale ba mu am ndam loolu la wax dana dana américains yi génn leen Mali américains yi da génn leen France américains dañu amoon base militaire ci biir France 45 46 47 général de Gaulle ne leen génn leen parce que général de Gaulle c'est un patriote waaw ne leen génn leen américains yi ñoom pare gu ñu négocier que général de Gaulle ne leen di gën génn coole na kur waaye bu ñu jógee général de Gaulle li ñu ci jàng mooy comme xaw naa dee moom France xaw na xaw naa xaw naa seey ndax Hitler doole ji mu am général de Gaulle li ñu njëkk a jàng mooy ñun France nañu utiwaat doole. xaw ñoo ñàkk suñum réew xaw nañoo làkk ay alma xaw nañoo noot te ñun dañ daan nootaante Afrique yëpp noot nañ ko ci ay xarnu ay siècle waaye ñun ndekete woo amuñu doole làppato africain yi dong la ñuy nax di leen napp di yóbbu ay mokk dóome ki ay fetal di leen noot ndekete leer ndeke loolu du doole leer jógee Allemagne bëgguñoo noot ci laay doog a xam ne ñun amuñu doole ndekete nañu nañu waat tam uti ay sox te jàngiwaat xeex ci la général jógoon nag daal dina léegi nag France amul doole ci guerre la jógee économie bi yàqu na léegi nag bu ñu bëggee am doole ñun France il faut que ñu bàyyi xeex bi ñuy xeex suñu fekk lu jiitu loolu France ak a xeex seen biir ñoom ñaar di xëccoo ay yoo xam ne au niveau de la Ruhr dafa am acier am charbon muy tey jii fi nga xam ne mooy l'Alsace-Lorraine nga xam tey mooy côté Strasbourg nga xam ne Allemagne nangu na ko France nanguwaat ko ci Allemagne Allemagne nanguwaat ko ci France France ñuy xeex ñoom ñaar ba yàgg ñu naan ñun dañu daan xeex suñu biir waaye léegi nañu jéem a jubóo nañu jéem a bàyyi xeex bi ñuy xeex suñu biir fexe ba taxawal suñu doole taxawal suñu koom-koom ba lii ñu dal bañ ñoo dara surtout wa France ci lañ taxawé nak après nak ñu ne nag nañu créé nak li nga xamné nak légui moy lépp lo xamné day bolé France ak Allemagne parce que bobu Allemagne mom xeyna amna am na doole doonte Hitler wàcce nañ ko France mi ngi soog jëgé ci xéx bi waye légui il faut que mu djubo légui dañuy def réconciliation entre l'Allemagne et la France parce que djubo gogou légui day tax Allemagne ñu man ko ar ndax Allemagne bu jëgé ci xéx bi dañ ko tere lépp luy armement mënutul am armée mënutul defar benn bombe dañ ko ko daan ci li nga xamné moy Nations Unies ca ba nga xam def nañ ko après guerre bi dañ ne Allemagne moom sox dafa duggati ndax lii ñu xawoon a def leen bàyyi ñu defal benn bombe wala leen ndax Hitler xaw na yàq àdduna bi kon ñu embargo leen sanctionné leen ba Allemagne waaye ndekete loolu la ñu def Allemagne moom moo koy arrangé comme Allemagne mënatu la defal ay sox mënatu defal ay chars de combat ay avion de guerre ndax dañ ko ko tere mu jël alal am ci liggéeyam yëpp di ko def na ci koom-koom nag di ko investir ci industrie Qui recherche développement ci technologie motax la première économie de l'Europe mo ci ëpp alal mo ci ëpp parce que xaliss bi mo des def ci armement yi pendant la guerre froide France a général de Gaulle jamono bobu mi ngi programme nucléaire pour que France ait une bombe atomique parce que comme puissance la japp nako te pour France mën a taxaw mën mom bopam négocier dans le concert des nations ñu bañ ko di wommat rek mu top ci les américains et anglais Le général de Gaulle dafa taxaw lank ne mom non seulement du bokk autant dafa génn autant génn gedd autant. lancer programme donc d'armement nucléaire lancer donc ay essais nucléaires sur le Pacifique ça ko fépp tubaab bi di kaas faalewuleen ñu ne ko lutax France c'est une puissance dafa wara am les moyens de sa puissance la France va se doter de la bombe atomique par A ou par B force ñep taxawal ko fexe ba France am bombe atomique France amee bombe atomique Allemagne moom amuñu bomb atomique parce que Allemagne ñu ne tere ñu jël dërëm def ko ci ay sox ndax liñ jot a xaw a taal àdduna bi Allemagne daal di rapproché wu ak France ñu ne kon yow Allemagne am nga koom-koom ndax yow loo war a def jëndee ko ay sox da koy def ay usine tabax defal ay oto Mercedes Volkswagen def technologie def recherche développement kon yow am nga koom-koom bu dëgër dëgër dëgër France ñun taluñu loolu ñu ngi wut ay bomb suñu alal yëpp fa lañ koy def ñu ne kon ñun ñaan nañu ànd en 1948 49 ñu commencé di waxtaan général de Gaulle et les chanceliers allemands ñu commencé di waxtaan di waxtaan di waxtaan ba 1950 1950 fofu lañu commencé nak taxawal nak ne ñoom ñaar dañuy def ben association pour lan pour bokk li nga xamne moy acier bi ak li nga xamne moy charbon bi nga xamne ne moom lañ doon xëccoo au niveau d'Alsace et Lorraine muy donc au niveau de la Ruhr wax naa sank ñu ngi ko woon xëccoo union européenne laay indi fu mu joggé union européenne gi ngeen gis tay mbotay bi fi la joggé fi li may wax ni moy mooy cosaanu union européenne 1950 Nous taxawal la SECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier CECA, moom organisation bi a taxaw Allemagne ak France nous taxawal la communauté économique autour du charbon et de l'acier CECA mooy l'Union union européenne gi ngeen Allemagne ak France nous taxawal donc l'union de la de de du Deutschmark allemand et de la bombe atomique française donc l'Union européenne ñaari mbir Allemagne ak France ndax lan seddoo li nga xam ne mooy charbon bi ak acier bi ñi ñu buñ doon xëccoo ñoom ñaar waaye tamit indi koom-koomu Allemagne muy le Deutsche Mark nga xam ne dafa am doole ndax économie Allemagne dafa am doole après guerre bi ndax ñoom investir ñu ci ay armes waaye dañu doon investir ci ay usines ci tabax ci ay industrie ci recherche développement ci lépp loo xam ne science la ba mu jural leen koom-koom bu takku bu dëgër ñu am doole ci koom-koom waaye amuñu doole ci militaire France ne leen man awma doole ci koom-koom waaye am naa doole ci militaire ndax jamono bi Allemagne di def ay recherche développement di tabax ay usine di produire man ko def sox ci ay essai nucléaire pour am bombe atomique am naa bombe atomique bi Allemagne am nga koom-koom léegi su ma jëlee sama bombe indi tekki taabal ji Allemagne nga indi sa koom-koom tekki taabal ji ñun ñaar bu ñu àndee kenn dootuñu mën moo boole Allemagne ak le couple franco-allemand ñu ne dañoo marié wu waaw c'est le couple di dollar et la bombe atomique euh, le couple du Deutsche Mark et de la bombe atomique ñoom ñaar dañoo sëy kii na ko man bombe lay indi kii na ko man Deutsche Mark lay indi ñu jël bombe bi ak Deutsche bi boole leen mu jur Union européenne le traité de Rome la le traité de Rome la mais 1950 51 ñu créé la CECA ñu dem tuuti général de Gaulle dafa amoon ambition mu ne non seulement dañuy ànd ñu Allemagne waaye nag man France maa ngi def programme pour am bombe atomique dama bëgg ñun ñu am suñu propre programme de défense militaire européen d' abord franco allemand d' ñu am suñu ay moyens de défense dootuñu compter ci américains yi parce que général de Gaulle dafa amoon gàcce ci li France daanoo ba américains ñëw di ko dimbale anglais yi da koo metti ndax bëggul ku koy jàppale moom dafa war a jàppale am réewam dafa am doole dafa motax tax bi mu jógee ci xex bi rek li mu def moy dugg ci programme donc d'armement de la France notamment l'arme atomique fexe ba am ko bi lolu amé nak mu ne nag américain génn leen France amu leen taxaw taf la France est un pays souverain comme ni Assimi Goïta français yi génn leen ñu lank nonu la américain France na yon génn leen France jappalé ngeen ñu gañu nañu wayé nak dem leen ñibi seen kër France nak dafa am autonomie France dafa am boppam ñi ngi xex pour am suñu ay armée ño wara ar suñu bop kenn waru ño ar ci la France ci la général dugg génné autant motax tay bo gisé ñi xex Russie ñom ñëpp and ci question Ukraine bi Ukraine Ukraine France ak Macron ñoom ñëpp di wax Ukraine dañu trahir dañu trahir général de Gaulle le général de Gaulle était pro-russe le général de Gaulle a toujours été avec les Russes donc d'ailleurs le général de Gaulle de son vivant mon nga xam ne tey jii moom la ñuy l'appel du 18 juin 1940 nga xam le général de Gaulle moo ko woote tey jii ñu koy fete en France Macron ñoom ñëpp di wax mais dañu trahir l'héritage du général de Gaulle parce que le général de Gaulle a toujours considéré que la Russie fait partie intégrante de l'Europe général de Gaulle defa mas a jàpp ne Russie ci Europe la bokk kon duñu du kenn du ko xeex moo tax boo ko masaan wax mu ne la mu ne l'Europe ñu ne ko général de Gaulle Europe fan la tàmbalee ak fu mu yem général de Gaulle ne leen Europe mi ngi tàmbalee océan Atlantique bi de l'Atlantique à l'Oural l'Oural mooy le côté mooy mooy mooy l'est de la Russie fa Russie côté ex est foofu mooy Oural général de Gaulle lii mooy Europe nee na Europe mi ngi tàmbalee ci océan Atlantique bi Angleterre Irlande euh, la Bretagne de France les côtes espagnoles sur l'Atlantique nee na ba ba ngay àgg Portugal sur la côte atlantique nga yéeg ko ba Irlande du Nord ba Écosse loolu lépp muy la côté nord de l'Atlantique nee na foofu la Europe tàmbalee ba ba ngay dem à l'Oural l'Oural c'est l'est de la Russie nee na lii mooy Europe général de Gaulle musta jàpp na Russie bokku ci Europe dafa mas a coopérer ak ñoom mas liggéey ak ñoom mais tey la américain ñëw ak OTAN dugg ci biir Europe dugg Union européenne infiltré leen jël ay état def leen ay char à canon di leen dóor ci kaw Russie pour bëgg a tas Russie ndax lan américain bi bëggul communisme lii kese la. même Nations Unies général de Gaulle sawaru ci woon. génn na deux fois dugg génn dafa mës a gëm ne Europe dafa war définir sa propre stratégie de défense militaire mais sa défendre ses propres intérêts en dehors des Américains le général de Gaulle n'a jamais été pro-atlantique il a toujours été pro-européen dafa mës a gëm ne Europe dafa war am sa défense am sa puissance autonome en dehors des Américains général de Gaulle mës a gëm Américains yi Américain. a ànd ak Américains parce que lii la mais Macron de trahir l'héritage nous trahir aujourd'hui la vision du général de Gaulle bi nga résister à la France a Nous fi traité de Rome traité de Maastricht élargissement la la politique extérieure la la politique extérieure et de sécurité commune la PESC Nous parce que euh, nous waaw ni Europe élargissement yi ni mu ñëwé tout ça loolu da ngay gis né élargissement yi américains ñoo ko dugg après parce que le général de Gaulle n'est plus ñi ci nekk ñoo des vendus américains yi infiltré CIA def ci liggéey bu ama ama am solo au niveau de l'Union européenne ñëw ba ñi ñu duggee tey Bill Gates dugg infiltré l'OMS l'organisation mondiale de la santé infiltré ONU non la infiltré aujourd'hui l'Union européenne les américains l'Union européenne bi ngeen gis ni c'est pour les américains américains ñoko mom duggal moom dugal fa seen lobby infiltrer infiltré leen ña fa nekk ñëpp américains lañu la liggéey parce que américains yi li ñu bëggoon utiliser l'Union européenne def ay élargissement ubbi ko yaatal ko ba dëkk yi nga xam ne ñoo nekkoon kon ci Russie gu démb ba la fédération de Russie te génn moom seen bopp ñu fexe ba boole leen ci Union européenne ak ay financement yu am doole nga xam ne dañuy wër dañuy wan dañuy wan ginnaaw Russie xeex Russie ànd ak bloc bi nga xam ne mooy bloc de l'OTAN mooy Europe ak États-Unis pour xeex ñi nga xam ne ñooy Russie loolu la Vladimir Poutine xam moo tax mu taxaw di xeex ak ñoom na leen yéen ba ñuy wax ne dañuy bàyyi xuloo beeg xeex beeg defar armée yi li taxoon mooy kenn ku ci nekk fa nga taxaw nga taxaw fa kenn bañ a puus jëm ci sa ndax kenn wut a jege sa morom ndax bi nga xamee ne am na crise au niveau de Cuba avec Fidel Castro ba Khrouchtchev daal di envoyer les bateaux de guerre russes ñuy def mouvement vers donc la baie de Cuba pour tiim ki nga xam ne mooy Floride à cent cinquante kilomètres donc de de Floride nga xam ne boobu bu ñu sànnee benn missile bu ñu bësee ki Washington day tas américain day xar Amérique day xar ci ñaar ba ko bañ ko waxee Kennedy ne ko les les les bâtiments de guerre russes ñi ngi def mouvement ci l'océan Atlantique bi vers donc la la baie de Cuba pour lan pour faire face aux États-Unis ba de kër di jógee kër di dafa saw tubayam daal dina nañ arrêté fekk bobu ñi ngi doon préparé ay hostilité contre Fidel Castro au Cuba pour mën ko déstabiliser le régime de Castro américains yi y a beaucoup montel ay coup d'état yo xamné comme Castro était allié donc à Khrushchev, aux Russes les Russes donc on dit on va ñun tamit déployer suñu ay navires de guerre à 150-200 km des États-Unis à Cuba mais là, c'est un danger parce que attention les navires de guerre russes c'est pas du c'est pas du Tafiyenguela c'est pas du Serigne qui talibé ki attention hein comme loolu c'est un danger gis nga américains yi bëgguñu ku leen jege seen territoire la puissance de frappe russe américain nee nañ bu ñu stationné au niveau de Cuba c'est un danger pour les États-Unis malgré nos antimissiles tout ça c'est un danger catastrophique ni ko américains yi bañee noonu la ko Russie yi bañee Russie tamit nee nañ yéen tamit seen avancé bi ngeen avancé ba ñëw ba tiim suñu réew mi Russie ñun bëgguñu ko nag ku nekk taxaw dadd dandu sa morom am fooy yem waaye bu kenn ñuuxu sa ñu signé ñu ñu d'accord bu kenn ñuuxu sa morom ndax ñun ñaan ñëpp am doole ku ci ñuuxu sa morom mën na tas ñu d'accord waaye américain respecté wuñu signature yooyu dañoo ci biir Union européenne influencé leen tas fédération de Russie ñenn ñi am indépendance ñu def élargissement di jël ci dëkk yi nga xam ne dañoo jege woon Russie am culture russe bokk ñoom aada cosaan yàgg ak ñoom di leen xëcc di leen guerre leen jox xaalis di leen dugal Union européenne ngir ñu mën a wëlbatiku xeex ak Poutine xeex ak waa Russe loolu tey moo dem ma dem a dem di pousse di pousse di pousse ba agsi Ukraine nga xam ne mooy den dernier dëkk bi nga xam ne moo dox diggante Russie ak ak occidentaux yi xam ne autant moo nekk ci ginnaaw français yi ñëpp nekk ci ginnaaw le bloc de l'ouest ñëpp nekk ci ginnaaw pour que lan pour ñu mën a rey russie rey communisme te loolu mooy bëgg-bëgg américain yi lii mooy li xew ukraine te kenn du ko wax waaye ki diggante bi en 55 c'est la conférence de bande comme am na ñaari bloc bloc de l'est bloc de l'ouest am na ñoo xam ne ñoom les pays du tiers monde ñu ne ñun bokkuñu a ñu b am nañu kenn li ñu tuddee les neutriotes neutriotes yi yàgg nañu de ñu ne ñoom waaw la conférence de bande ñu def conférence de Bandung les pays non alignés maanaam nekkuñu américain ak américain ak français yooyu waaye ànd ñoo russi ñun bokkuñu kenn suñu ay intérêt la ñu doxal ñoom tamit ñu taxaw mu ne muy le troisième bloc les pays des non alignés est-ce que est-ce que li ñuy wax mi ngi leer

kon Allemagne taxaw ànd ak France ñu taxawal Union européenne Union européenne googu tey moo ñëw a ñëw ba bu ngeen xoolee Union européenne tey dafa am crise ndax général de Gaulle moom dafa bëggoon l'union des pays souverains maanaam dañuy ànd waaye kenn ku ki nekk da ngay moom sa bopp kenn du jël sa moomeel bàyyi ko ci biir ndax lii la doon bañ bu ñu demee ba souveraineté France souveraineté dëkk yëpp. dem ba seey ci biir Union européenne te Union européenne américain dañ koo infiltrer téye ko di ko manipuler di ko yóbbu fu leen neex di ko defee xeexukaay loolu la général de Gaulle doon bañ loolu moo tax tey ngeen gis Angleterre génn nañu lu tax Angleterre génn Brexit parce que Angleterre dem na ba xam ne bu desee ci biir Union européenne day ñàkk autonomie day ñàkk day ñàkk souveraineté mu génn boo ko boo ko parce que. Mon la Marine Le Pen di xex ak luñu ko bañ bañ bañ ci côté raciste amna côté bu mu amee njariñ Marine Le Pen le rassemblement national moy souverain souveraineté France ñom duñ ko caaxaana ñom ak général de Gaulle ñoo ci yam doole France duñ ko caaxaana ñom ak général de Gaulle ñoo ci yam waaw côté bobu le rassemblement national de Marine Le Pen est un parti nationaliste un parti souverainiste comme ñun ñi di xex and ak Ousmane Sonko dañu bëgg Sénégal nekk un parti un pays souverain ñun ñëpp dañu bëgg mom suñu bopp. ñun ñëpp français nga ñuy war te ñoo wàcc ñu ngi xeex pour mu wàcc ñu noonu ñu ko bëggee noonu la ko Marine Le Pen bëggee ci France ndax Marine Le Pen dafa jàpp ne français yi américain dañoo na war américain dañoo war français yi kon doo jël lépp sànni ko doo jël lépp téye ko lu ci nekk da nga koy jeex tàllal ko faram fàcce ko xool la cay njariñ nga jël la cay musiba nga sànni amul lenn lu baax à cent pour cent oh là là kii woote xanaa xam damay live amul lenn lu baax à 100% pour amul lenn lu bon à 100% parti Marine Le Pen bi parti Marine Le Pen bi am na ci ay valeurs yoo xam ne man dama koy partager ak ñoom les valeurs de famille les valeurs de de foi en Dieu euh, catholique euh, ak yi bare bare yoo xam ne ñoom ak général de Gaulle ñoo ko bokk général de Gaulle était un grand croyant c'était un homme d'église un homme qui a la foi en Dieu un homme qui est patriote un nationaliste un souverainiste loolu man dama ko partagé ak les nationalistes ñi bokk Front National xaw ma ne Rassemblement National général de Gaulle yooyu c'est des valeurs yoo xam dama ko jël ci général de Gaulle waaw man mii di wax yéen am na côté général de Gaulle boo xam dama ko ci fan parce que man dama nekk patriote dama gëm patriote patriote mooy ku bëgg sa ku xeexal sa pour sa am doole ba kenn du ko noot sa réew moom boppam loolu la Marine Le Pen di xeex loolu la général de Gaulle doon xeex non ku mel ne Emmanuel Macron Macky Sall ñoom nga des lobbies donc yoo xam ne ay Khazars ñoo nekk ci ginnaaw ay Ashkenaz ñoo nekk ci ginnaaw mafia moo nekk ci ginnaaw ay lobby góor jigéen homosexuel ñoo nekk ci ginnaaw ay lobby pédophile ñoo nekk ci ginnaaw ñoom amuñu pays amuñu frontière ñoom club la boo xam ne moo gën a puissant les états club boobu réalité ya bëgg-bëgg yi ña fa nekk moo ëpp doole bëgg-bëgg askan wi ñoom xamuñu ay état ñoom li ñu dox mooy seen bëgg-bëgg jël armée bi dóor xeex ak nit ñi pour seen mbon mbon sax ti kaw réew bi ñoom foofu ci logique boobu la ñu nekk général de Gaulle nekkul woon ci loolu dégg nga maam Marine Le Pen gëmul loolu mi ngi koy xeex ak keneen a keneen ak keneen donc parti Marine Le Pen am na ay valeurs yoo xam ne c'est des valeurs intrinsèques universelles yoo xam ne qui sont des valeurs basées sur am gëm-gëm am race dafa am solo donte après am racisme le racisme oui ça je le condamne chez eux c'est un parti qui prend le racisme et tout ça je le condamne je suis contre le racisme même si du ñoom rek def le racisme am na fépp boo demee Afrique am na si ñoo xam ne tey boo bëgg a takk tubaab yàlla bul takk tubaab jàngi ñaan la parce que kenn ku nek nak sa bopp la gënal du dama la bañ loolu amna na mais <laughs> voilà c'est comme ça. Oui, c'est la crise des bêtes cochons. La crise des bêtes cochons, c'est la crise de, de, de, de Cuba la crise des bêtes cochons ah, voilà c'est ça effectivement am ñoo xam ne effectivement c'est bien ils c'est intéressant dañu koy tënk rek bañu ko bañu ko bañu ko guddal parce que bu guddee effectivement am na ñu bari naa live bi bu guddee du kii mais ngeen xamee que noonu loolu mooy premier aspect bi nga xam ne moom laa indi ci live bi deuxième aspect bi mooy li nga xam ne moom laa junj sànq te mooy li nga xam ne euh, la réunion bi nga xamné ñam def nañ ko muy gouvernement Macky Sall bi Amadou Ba jiitu ko am na lu ma ci waxoon barki dem waye loolu lepp Euh, li muy tekki rek ci tënk ngir mu bañ a gudd mooy dañoo jaaxle ñoom tiit nañu Macky Sall yónni na leen ne leen il faut ngeen génn wax réew maa ngi tàkk fen yi bari na Antoine Diome gi jaar fee fen Ismaïla Madior jaar fee fen kenn ku nekk di fen fen yi bari na il faut ngeen génn wax waaye génn boobu ñuy génn wax musiba la ci ñoom ndax li ñu gën a wax fen yi di gën a leer li ñu gën a wax ñuy gën a suux li ñu gën a wax di gën a am ay jafe-jafe ndax ay fen di bi jaaw rawatina nga bëgg a fenal ko ko ko tokki télé yi lu ne nga wax nekk benn pays pornographique pornographie réew moo xam ne léegi affaire yu càgg la waaw réew mi am nay xalif généraux fi lañ suul Serigne Touba ak Alaaji Malik ak Baye Laay ñëpp waaye réewum càgg la réewum pornographie sexe drogue cocaïne fen moo am ci réew mi de fi lañ suul Alaaji Malik fi lañ suul Serigne Touba fi lañ suul Maolana Cheikh Ibrahima Niass fi lañ suul Seydina Limaamu Laay fi lañ suul ñëpp waaye sexe drogue cocaïne pornographie donc lañ fi wax télé yi moo am fépp plateau télé yi moo am fépp tant yi gàmb yi ma nangam taan ma nangam taan nangam réewum nangam taan rek fi am liyee fi am waaw kenn du ko wedd waaw am ñaari atu yàlla jàppal Sonko indi Sonko am Adji Sarr ñenn xalif yi sax di accueillir Adji Sarr ñii di wax ci suuf ñii di ruumandaat kenn ku nekk teg say mafia ce sont des Khazars ah Spurs yaakaar na ñoom rek la de ñu nekk pays de l'Est yi Kazaar yaa ngi ci biir Sénégal ñu ngi ci biir terexe yi moo tax bu ngeen leen jékkoo ñu jóg fexaw defaru buñ leen jékkoo leen rey kenn du ci wax loolu jikkooy Kazaar la jikkooy faux juif lañu ñoom ñëpp moo tax man leen Sénégal dafa am ay juif yu nit ku ñuul ay juif lañu ay lañu mi ngi ci biir réew mi voilà so ngeen xëppi seen bëti yeewu de léegi nag fen nañ seen i fen i tooy xepp nas seeni nas te déggoowuñu amuñu intelligence bi fen mooy li gën a jafe ci àdduna bi fen am xel a koy def fit moo koy def boo amul xel amoo fit mënoo fen ñoom nag amuñu xel amuñu fit ba nag bëgg di fen moo tax seeni fen bu ñu ko fenee léegi balaa jant bee fenk fen yi na muy dem yoonam ndax mënuñoo fen léegi nag dem nañ ba sës ci seeni fen lépp lu ñu fen bu ñu xëyee bu ngu jant bi génnee ba toll ci diggu njolloor xam nga ndax xam ngeen dagg jantub diggu njolloor jantub diggu njolloor buñ ci tollee fen yi na muy dem yoonam légui nak dem nañ ba xamna légui fenn jàllatul ndax xamnañu nañu li ay fenn la légui ñu nañ jël ay sox jël ay fetal xex ak ñom xoxatal leen tital leen dama bëgg ngeen déglu ma bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax fi ma toll ni li may wax mu dugg seen noppi yi ngeen dagg ko jàllale ko yéen sénégalais yëpp lay wax Macky Sall fenn na jàllul pexe na jàllul complot na jàllul légui li nga xamne moko déssé moy xoxatal jàpp na ne léegi li mu bëgg ci réew mi xoqatal askan wi tiital leen moo ko koy may ci naka ci jàpp dugal ci kaso bi boobu ba léegi mi ngi jàpp dugal ci kaso bi yëgaluñ ko suñu yaram gaa yaa ngi dugg ci kaso bi di xàqataay ak ak fecc ak di daas di fanaan di yàkkamte génn pour de dugaat ci rang bi xeex kaso yaa ngi fees dell mais yaa yëngaluñu na jàpp ñëpp def ci kaso bi ba xam lu muy jëriñ dañuy daaj ci kaso yi génn ko xeex ak moom benn ñaareel bi. dem na ba di affect di di di di affecté yow boo koog man dama lay yóbbu fee gis ngeen ni ñu def mère Ngagne Demba Touré yooyu yëpp pour lan xoqatal duyul mu ne léegi day jënd ay sox Saint Petersburg indi jël ay nervi ay bandi jox leen ay fetal ne leen di leen teq ci fetal yi di rey di boom di rey kaso la waxoon faale wuñ kaso bi mu ne police faale wuñu police gendarmerie faale wuñu gendarmerie affectation faale wuñu ko armée bi xeexuñoo ak armée bi lu ko dese damay jënd ay fetal léegi ginnaaw ñi ñëpp mënuñu maa indil li ma bëgg damay uti ay wuyu ay bandi yoo xam ne dama leen di fay kenn ku ci nekk mi junni par bis jox lay soxna la ku yëngu rayal ñaari at a ngi nii mi ngi rey ñi ngi suuli waaye bu suba dañuy jógaat mi ngi rey ñuy génn muy rey ñuy jóg muy rey ñuy jóg ba ba fu mu neex loolu dafa am lu muy wëndu dafa am lu muy jur ci xeex ndax ki ngay xeexal mu am lu mu la bëgg sëf ci nooteel ci ñaari mbir la ko mën a defee pour mën a am li bëgg benn bi mooy mu naxam yow nax la nax la nax la cim xel ba ba noot la su la mënta nax cim xel. da lay jéem a teg fitna pour noot la Macky Sall jéem nañoo nax cim xel ñu xamal ko ne ko suñu xel moo gën a màcc xelam mënuñoo teg xel moom ba yu war ci suñu kaw xam na ko ba mu demee ba xam na loolu mënut a jàll daf na léegi naa uti ay sox fitna teg leen ko ci kasoog police ak gendarmerie ak fetal yi rey yóbbu seeni fit boom leen rey leen ngir ñu dellu ginnaaw ndax ay mboqat lañu boobu tamit mi ngi koy jéem sottiwul kon ñaar yi arme yi mu am ñaari pexe yi mu am yëpp lajj na bu mu ci mënti teg rek pare nañu pour dégg ko léegi amul pexe Macky jamono yi may wax ak yéen amatul pexe ndax lu mu jàppoon na bu ko yëkkatee sëf ko askan wi askan wi dellu ginnaaw ndax ragal askan wi fit wi ñu am taxaw gi ñu taxaw jaamaar la ak moom jël suñu bakkan yi jaayante ko moom loolu moo ko néewal doole amatul pexe fi doole ndax lii gënoon a rëy lu mu mënoon def pour jàpp ne bu ko defee dana am ndam ci li mu bëgg mooy rey faat ay bakkan. mooy li mujj loo xam ne képp kuy def ci àdduna bi dictature képp ku bëgg noot aw askan li ngay mujj a jëfandikoo comme moyen comme pexe bu tax nga mën a am noot saw askan mooy yéegate ay sox ay fetal di dóor di teq fetal teel di rey ku rek ku nga rey ku mas a jiite réew mi ci fitna noonu nga ko jiitee fetal ku wax ma rey ku àndul ak man ma rey la loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a rëy ci ku bëgg noot aw askan di jëfandikoo bu demee ba sës looloo koy dese. loolee nag moom la Macky Sall yëgati nag ñu ne ko ñun lii sax même boo ko yëgatee nga xam ne mooy sa texe yu mujj mooy sa dernier moyen ragaluñ ko pare nañ pour dee yow yaay compter del compter commencé nañ wàññi suñuy néew di ñu ngi wàññi ñu ngi wàññi suñuy néew compter dana am foo xam ne bu fa àggee te àgg na fa dee gi àgg na foo xam ne léegi CPI day taxaw la traité de bi nga xam ne moo institué la cour pénale internationale eh, dafa am compétence ci lii Macky Sall nekkee léegi day taxaw pour xamal leen ne aw askan wu taxaw kenn mënu koo noon boo ko bëggee nax mën nga koo nax benn yoon waaye mënoo koo nax toujours saa su ne du jàll boo demee ba naxa yi jeex mënutoo koo nax nga ne dama koy xookatal jéem ko rey mën ngaa rey benn ñaar ñett waaye am na foo xam ne bu fa gi àggee il faut nga takk sa dem foofu lañu ànd ak wër ndomb gi mooy ragaluñu kaso ay bàmmeel loolu mooy suñu arme ñun ñu am nekkul ay xeer ak i nekkul sax ay cocktail molotov ak i nekkul sax ay lance-pierre ci la bokk waaye arme bi ñu am bi gën a efficace contre Macky Sall mooy taxaw tiim ko mu ñu dóor ay bal ñuy suuli bu subaa ñu jóg taxawaat mu dóor ay bal ñu suuli bu gannaaw subaa ñu taxawaat rey gi day am foo xam ne bu fa àggee dina am ñu dee de dina am ñu mu rey waaye ñi mu rey moom ñooñu dañ ko jiitu rek waaye da leen fekki ndax moom dañ ko rey. ndax amna fo xamne bu fa xex di agge psychologiquement li ma leen jox nak man je suis dans man dama nek ci guerre psychologique man guerre psychologique la def mo gëna graw guerre arme ak fetal Macky ay fetal la gën a ay munition ñun suñu xel bi lañuy xex ak Macky Sall ak suñu fit bi moom dafa yor ay milliards gën ay arme ak ay sox ñun yoruñu dix francs Mali waye suñu fit bi ak suñu bakkan bi lañuy xexé ak mom ndax lolu mo gëna efficace fu ndax Macky mënta rey Sénégal yëpp donte Cheikh Yérim Sek nee na ko reyal Sénégal yëpp apologie au génocide la def Cheikh faux journaliste il a fait un appel au génocide il a fait un une apologie au génocide il a demandé au président Macky de tuer les 90% de la population sénégalaise pour imposer sa volonté contre Ousmane Sonko voilà ce que Cheikh Yérim Seck a dit publiquement deux fois, il l'a répété. C'est une forte conviction chez lui. Je le vois maintenant essayer de se dédire pour dire que j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai dit ça. il faut ngeen respecter Sénégalais yi de di fonto askan wi Macky Sall nag mi ngi ci loolu nañ xool ndax Macky pare na pour 90% des Sénégalais yi bàyyi fi dix pour cent bi loolu yow ak man ñun ñëpp war a taxaw jaayante ko moom ko suñu Macky Sall amatul pexe parce que lépp lu mu tegoon comme pexe jàpp na bu ko sëfee askan wi askan wi dell ginnaaw pexe yooyu sottiwul te bi ci gën a kawe li ci gën a rëy li ci mujj li mu gën a rëy gën koo fonk mooy rey faat ay bakkan mois de mars la jóg tuumal Ousmane ko ci ay fen ay gone jóg na ko ay fen la li ngay wax ay fen la jël seen bakkan tey la ko jaay jox ko Macky Sall jaay ko jaay ko fukki ndaw ak ñeent mu dugal mu rey leen ñu suuli ñi ay martyr àjjana la ñuy yeewoo suba incha allah rabbi kenn leen fàtte. ñu tappale seen tappale ñaari at teg seen daan génn teg ko ci ko Ousmane Sonko daan yu bokkul ak lañ ko doon tuumal naa ci dikk ñu génn barki démb li deewaat ci nit ñi mat na juróom fukk léegi jeexagul de ñoom fukk juróom benn ñaar fukk juróom benn lañu wax am na si na fukk ñaar fukk juróom benn tout ça waaye ëpp na ko dem na ba cinquante personnes wala quatre-vingt ñëpp recensé guñ ñëpp dina leer kenn ku ne yaa ngi joxe sa chiffre chiffre officiel bu définitif bi génnagul sans compter les blessés ngi dóor ay bal ci tànk dóor ay bal ci biir ñu dóor ay bal ci bopp ñii lafañ ñi ñu dagg leen les amputés les blessés ñoom ñëpp defaguñu état des lieux yi lépp ngi suñu kanam lu tax parce que li ñuy xeex dafa kawe moom li mu jàpp ne bu ko sëfee askan ñu dellu naaw làqatu ndax suñu bakkan yi dañ koo bëgg a sakkanal ci ay tappale ak nooteel suñu bakkan yi duñu ko sakkanal amul suñu bakkan yi dañ koy jaayanteeg Macky Sall bu mënee rey sénégalais yi comme ni ko Cheikh Yérim Seck digalee na rey ñëpp waaye li mu bëgg du ko am lu dul mu faat sénégalais yëpp dos si moom tant que ñoo ngi ndaw ñi ci réew mi li mu bëgg du ko lu leer laa leen wax léegi nag loolu moo leen jaaxal pexe yi ñu doon nas yëpp sottiwul ci Ousmane Sonko waaye pexe yi ñu doon nas ci askan wi ngir bëgg leen a noot benn sottiwul ci askan wi tey lañu gën a ñame dee xam nga Macky dafa am lu mu yee senegale loo xam ne man dama cee am kontaan dama ko koy sante Macky dama koy sant am na loo xam ne def na ci réew muy lu am am solo Macky Sall daf ko def ci Sénégal muy lu am solo loo xam ne kenn bàyyiwu ci xel mais man dama cee bàyyi xel mooy Macky am na loo xam ne fexe na ba dootul jóge Sénégal daay ma Macky Sall fexe na ba sénégalais ñeme kaso benn Macky fexe na ba sénégalais ñeme de déggu leen ma de Macky Sall indi na Sénégal ci benn façon gisinu senegal bu bees boo xam ne moom Macky moo ko liggéey loolu moom réussir na ko loolu moom bilan Macky Sall lu positif la ci man man lu ma rafetlu ci Macky Sall su ma amee lu may rafetlu ci Macky Sall bokk na ci li Macky Sall indi réew mi ci na ak tëj kaso bu metti boo xam ne Sénégal léegi kenn ragalatul dem kaso ndax ni Macky Sall yombalee dem kaso nit Sénégalais yi ba léegi léegi dañ koo miin loolu man daf maa neex benn ñaareel bi nga xam ne Macky Sall indi na ko ci réew mi ba léegi nekkatul luy xoqatal nit wala lu koy xiital wala loo xam ne nit ñi dañ ko ragal mooy faat bakkan rey nit ñu suuli ci xeex dëgg Macky fexe na ba Sénégalais ñemeetuñu ragalatuñu fetal ragalatuñu balu fetal ragalu gi dem tëdd ci bàmmeel yi loolu Macky fexe na ba mu dugg ci ndaw ñi léegi ndaw ñi léegi dañoo ñeme dee dañoo ñeme dem kaso waa léegi ñaar yi bu ko Macky Sall fexe ba boole ko ci bilan ci bilan bi mu yoree réew mi fukki at ñaar fexe na ba sénégalais yi ñeme nañu kaso ndax Macky moo yàq kaso bu njëkk dañoo ragaloon kaso ndax dugg kaso yomb lu la fay dugal caaxaan lu la fa dugal Macky indi ay fenekk ay tappale xef xippi kaso xef xippi kaso xef xippi kaso mandat de dépôt mandat de dépôt juge mu am ay juge yo xamna ne léegi Mamadou Seck ñooñu dañ leen tuddé juge mandat de dépôt d'office automatique sénégalais léegi liñu gëna xam moy mandat de dépôt Macky ko indi ci réew mi ñu yaakaar ne loolu yi bu koy def yaakaar na day xoqatal askan da leen ragal lo waye lamu jur moy effet contraire parce que ma ngi ci psychologie lay def de sociologie ak psychologie lay def Macky acte yi muy posé dafa yaakaar na day lor sénégalais waye da leen a dimbali. ndax gone léegi dañoo ñeme kaso ndax juge mandat de dépôt ba mu fa teg muy Modou Seck mandat de dépôt mandat de dépôt mandat de léegi min nit ñi dañoo miin mandat de dépôt nekkatul li ragal dañ koo miin léegi dañ koo adopté loolu ñun daf loolu ñun dafa baax ci xeex bi ñuy xeex xeex bi ñuy xeex dafa baax li nga xam ne moom lañ ñuy xoqatale ñu miin ko ab virus bu duggee ci sa yaram premier fois da lay sonal mais boo ci fajoo ba tane da ngay am lu ñu tuddee immunité. sa yaram day xàmmee virus bi sa anticorps yi les globules blancs dañuy xàmmee virus bi bu bu ëllëgee bu dellusiwaatee dañ koy nag piix téye teg ko fële na ko yow xàmmee na jaaroon nga fi xaw ñoo waaye bi yoon moom duñu la bàyyi foo nooyee boo dugg ñu lay képp teg fee nañ virus bi xam ko Macky nag loolu la ñu dimbalee Macky daf ñoo dugal ci kaso bi ba ñu miin kaso ba mos kaso léegi suñu yaram yi ak suñu ruu yi dañoo dañoo na maanaam dañoo fend ci kaso léegi kaso nekkatul lu ñu ragal Macky dañu ciy dimbali <laughs> dégg leen fi may waxee yàlla du nit yàlla buy xeex ak yow ci jëf li ngay xeexee yow la ngay jàpp ne boo ko defee yow ci ngay am ndam ci la yàlla di dugal xeexam yàlla moom yàlla du nit Macky li muy jëfandikoo yaakaar ne loolu moo koy may ndam Macky ndekete ñun lay liggéeyal moom bu muusoon kaso gi da koy baax rey gi da koy baax te uti beneen pexe waaye tëj ci kaso ak rey nit loolu Macky ñun la koy defal ñun ndaw ñi léegi miin nañu kaso miin nañu nit Sénégal la a baax na ndax Sénégal du baax mukk tànk nit ñi mënuñoo pare pour dugg ci kaso yi Sénégal du baax mukk tànk sénégalais yi pare wuñu pour dee loolu Macky mi ngi ciy def liggéey bu am solo ma di ko ci gërëm déggu leen fi may waxee de fi may waxee dafa xóot borom xel laay waxal ak ñi pare. gaa yi nekk ci kaso ñoo gën a bu ñu génnoon tey ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo leen daa xeex ñu nekk ci seen yaram yaa ngi xasan pour yàkkamtee génn pour xeex kon kaso bi amul njariñ kaso bi dafay créer ay mécontent créer kaso bi day tax boo fa demee da ngay gën a bëgg a xeex sa day xasan kaso bi kaso bi boo fa duggee boo gën a da ngay <laughs> donc Macky amul pexe aw askan lu mu kenn du xeex ak moom jënd ay fetal la ut ay équipement ki ay oto ki Moussa Fall ak Antoine Diome ci yam mënu leen a muusaka maccaat ba gañ a xeex bi mënta ndax gañe xeex bi mooy boom ñëpp faat ñëpp rey ñëpp te foofu du ngeen fa ñun foofu du ngeen fa àgg te ñun dañoo pare pour dee bu ngeen reyee fukk téeméer jóg bu ngeen reyee téeméer junni jóg bu ngeen reyee junni million jóg noonu la ñuy xeex ak yéen ba am dam ci yéen ci nii wala ci ne amu leen pexe arme bi ngeen gën a am yéen seen arme bi gën a bi gën a rëy bi gën a rëy nekkul cocktail molotov nekkul lance-pierre nekkul ay xeer nekkul yooyu yëpp donte loolu ay arme la mais arme ultime bi ngeen am arme bi gën a rëy bi gën a doole bomb atomique bi ngeen yore yéen ndaw ñi bombe atomique mooy pare pour dee ñun ñiy xeex ñëpp ñu taxaw pare pour dee mooy kooku mooy bombe atomique bi kooku mooy bombe nucléaire bi contre Macky Sall parce que Macky li mu jàpp ci boppam mooy ñun pare wuñu pour dee li mu jàpp mooy ñun ñemewuñu dee li mu jàpp mooy ñun bëgguñoo dee ñett la jàpp bëgguñoo dee pare wuñu pour dee ñemewuñu dee fépp fu toog di wax dina saba nocc pour num ñuy nootee Macky Sall li muy jiital ca noot ga ca xalaat ga muy sénégalais yi ñemewuñu dee pare wuñu pour dee dañoo ragal dee moom li muy nas yëpp ngir bëgguñu koo sëf ci doole ci loolu la ko teg waaw foofu mu teg nag gis gisana gisam boobu jàpp na ñun lii mu lii mu lim na ñun nekkul ci ñun mooy ñeme ñu dee pare ñu pour dee dañoo ragal dee ñetti yi mu jàpp moom Macky Sall dañ koy wan safaan bi contraire bi ne ñu axakani ah da ngaa jub pare nañu pour dee ñeme nañu dee te ragaluñu dee xam nga ki lay pexeel pexe yi mu teg ko ci xalaat boo xam ne lii ak lii ak lii la mu ne ñii nii ak ñii lañu mel bëgguñu lii ñemewuñu lii bu ma leen sëfee lii am li ma bëgg léegi ñun dañoo war a intelligent fexe ba kooku noonu bi lim ñu bëgg a saf ci fan la ko teg buñ ko nattee ba xam fi mu ko teg foofee mu ko teg ñun dañuy fexe ba mbas ko dañuy fexe ba may ko ne ko li nga jàpp ci ñun loolu nekku fi da ngaa jàpp ne wuñ dee dañ lay wan ñun dañoo ñeme dee da ngaa ñun kat dañoo ragal kaso daañu la wan ne ñun ñeme nañu kaso lépp loo jàpp ne nekkul ci ñun dañ ko ragal ba daf ñuy taxal loxo daañu fexe ba wan la contraire bi. kooku mooy arme atomique bi kooku mooy bomb bi moo tax il faut que ñu pare ñu ñëpp psychologiquement mentalement ba lépp lu Macky Sall jàpp na dañ ko ragal ñu xamal ko ne ko ragaluñu ko loolu mooy arme bi ñu gën a am mooy arme bi ëpp doole mooy sox bi ñu gën a am contre Macky Sall leen ma de dégg li may wax déggu leen ko de li may wax déggu leen ko. déggu leen ma de déggu leen loolu mooy li tubaab détermination courage ak détermination suñu armée bi ñu njëkk a am du ay cocktail cocktail yi daf ñuy dimbali ndax boo amee ay cocktail molotov am ay lance am ay xeer am am am am am am lépp looy xeexukaay boo ko amee te amoo fit gis nga guerre fetal du ko rek la de ak i bomb de guerre fit moo koy réglé képp kuy dem guerre képp kuy xeex te amoo fit doo gane buñ la joxoon matériel yi nekk ci àdduna bi yëpp nga di ko xeexee ji boo yox yoxi amoo fit boo ñemewul dee doo xeex moo tax soldat sëb lañ leen njëkk a jàngal mooy dañuy liggéey seen xel yi travailler leen psychologiquement dafa leen ay brainwash dafa leen ay lavage de cerveau ba nga xam ne booy solu soldat booy dem xeex sa xel dootul nekk ci dund ak dee danga koy fàtte ndax loo bari bari ay pexe yor ay kano ay char de combat ay kalachnikov ba noppi amoo fit doo gañ a xeex xeex fit moo koy gañ a te ki am fit mooy ki yemale dund ak dee newoon naa leen kenn du dund ta parewoo pour dee ndax dee moo ju dund dee mooy ndayu dund yàlla dee la njëkk bind soog indi dund dee la yàlla bind génn ci dund kon boo bëggee dund il faut que nga ñeme matériel yi ngeen di ut yëpp pour xeexukaay ko bu ngeen parewul pour dee du ngeen gañ xeex bi kon xeex bi c'est psychologique c'est mental xeex ci bopp la d'abord bu ñu amee boobu posture am adopté suñu bopp yi ñun ñëpp xam na ñun ñëpp ay cadavre yu dee lañu ñun ñëpp dee nañu ba noppi ñun ñëpp di xeex ak Macky ay néew yuy xeex lañu néew yu jóg di xeex loolu la kenn ku ci nekk ci sa bopp war a def sa bopp na yow néew nga dee nga ba noppi yow moom gas nga sa bàmmeel pour dugg ci boo demee doo dellu si soldat yi xex di am dam yeup ya, non lañuy def bu ñu dem guerre dañ nan duma delusi moy tax nga mën delusi waye boy dem guerre nan damay delusi do guerre bo demé do delusi ndax da nga fa ragal ragal gu toll ne do fa xex la nga fa wara xex pour am dam delusi ragal da ngay ragal ba tax do xex ci lañ lay rayé do delusi fa fekk fit wa nga waroon andal ci xex ba mo la waroon may nga mën a xex ba ba delusi waye boy dem di guerre ta amu fit ndax bëgg delusi ci ragal ñàkk fit ga nga ñàkk ca fi ca guerre ba ca lañ lay boome ba doo dellu déggu leen ma de il faut que ñu am ndaw ñu déterminé wu ndaw ñu am pas-pas ndaw ñu dogu ndaw ñu taxaw temm ndaw ñoo xam ne parce que li tax sax loolu war a nekk mooy ndaw ñi yéen da ngeen amul dara ndaw ñi yeen seen lépp ngeen war a def ci xeex bi lu tax ngeen war a seen lépp xam ngeen lu tax. parce que amu leen dara xam nga seen lépp déglu leen baax dama ne ndaw ñi seen lépp ngeen war a def ci xeex bi waaye lan mooy seen lépp yéen ndaw ñi seen lépp dara la zéro ndax mag ñi ñoo toog ci kaw nappaaje jeeg ji sàcc àlalu réew mi seddoo ko seen biir xañ leen ko yéen ndaw ñi ndaw ñi yéen amu leen benn cër ci réew mi amu leen dara dañ leen a xañ lépp nit ki nag bu ñu ko xañee lépp day ñàkk lépp ku ñàkk lépp nag da ngay jël risque da ngay risque lépp waa ji je risque tout ñu ne lutax mu ne ko j'ai rien à perdre ñu ne pourquoi t'as rien à perdre mu ne parce que j'ai rien celui qui n'a rien n'a rien à perdre et celui qui n'a rien à perdre risque tout parce qu'il n'a rien à perdre il n'a rien à perdre parce qu'il n'a rien déggu ma de ku amul dara da ngay soop sa lepp lo am jël ndax amo lo ci ñak amo looy ñak ndax amo dara amo dara parce que dañ la xagn lepp ku ñu xañ lépp da nga jël sa lépp def ko ci xeer bu jàllee nga am dara bu jàllul amoo looy ñàkk ndax amoo woon dara ndax dañ laa xañ sa lépp est-ce que wax ji leer na li may wax leerul de dafa me ne yéen déggu leen ma de maa ngi wax mais seen tekkaaral gi leerul de dafa mel damay wax rek mu dem ci mbooy gi de nekkuma ci seen xol yi de maa ngi ci seen xel yi ci seen biir xel laa dugg di mun muni fi mu toll xooluma yoruma bët yoruma dara sama xel laa jël dugg ci seen biir xel yi maa ngi ci seen psychologie maa ngi seen xel yi de te santiruma leen est-ce que li may wax leer ku ñu xañ lépp ci doole da ngay jël sa lépp def ko ci xeex ngir ñu jox la say àq ak sa yelleef yiñ la xañ dañ laa xañ lépp lu fi des. amoo dara sa lépp la ñu foqati ci doole waaw bu ñu foqatee sa lépp ci doole doo jël li nga dese sa fit takk ko xeex ak ñoom ba am loo foqati ci ñoom ñu na la déedéet mën nga cee dee mais boo ci dee nag yow dee nga ba noppi di ku ñu xañ lépp kay dee nga da ngaa dee physiquement wala nga moral moralement nga dee matériellement dañ laa xañ matériellement moralement ci dignité dee nga yow bu yàgg sa jëmm ji rek nga fa nekk di lay di di di pëyi pëyi mais dee nga xañ nañ lépp amoo dignité amoo am am amoo man-man dara lépp dañ la koo xañ ci réew mi yow dee nga da ngaa dee yow kadaam la nga yow dundoo waaye léegi bu ñu xañ na loolu lépp nga xam ne mooy li nga xam ne bu ko nit amul dund amu fi nit dafa am nit du jëmm rek nit jëmm la ju am ruux juy lekk-lekk gu sell di faju am ay àq ak ay yelleefam mën a takk jabar mën a sëy mën a fondé famille mën a am lu mu dundee te du yalwaan mën a dimbali ay waajuram bu ca xaje man cee dem màkk bu ca xaje man man loolu mooy dund mais dund du xëy di noyyi noyyi bàyyi may dañuy noyyi garab dañuy noyyi loolu bu dee rek mën ngaa nekk bàyyi ma mën ngaa nekk garab bu ñuy wax nit kay mooy leneen la nga xam ne moom laa lim léegi moo làmb ak dund doomu aadama loolu bu fi jógee kay kon yow jëmm gi rek nga fi nekk mais dund amatu fi jëmm yi kese nag amul njariñ dund gi dafa am lu mu xañ la ko da ngaa a jël da ngaa ji xeexe ko def ko bomb jëmm ci def ko bomb pour que say àq ak say yelleef dellu si wax ndax dee nga ba noppi kon bu ci korkoral dara bu ci sakkanal du dund du xëy di nooyee ka nooyi loolu dund dund mooy xëy di nooy xëy di lekk xëy di nax xëy di liggéey xëy di am payor xëy di am jabar takk sos famille boo de dem màkk dem màkk bu tabaski jotee nga mën a am loo jëndee xar mën a xooti sa jabar loolu mooy dund loolu boo ko mënta am da ngay xeex te ñi naan ñi lay wax bul xeex ñëpp am nañ ko moo xam sëriñ bi la moo xam xaalis bi la moo xam ki nekk ci politicien bi moo xam ku ànd ak Macky Sall ki la naan bul xeex ki la ku dee yaa perte ku kuñ ci bëm yaa perte moom am na loolu lii muy lii ngay xeex bëgg ko am mu bañ nga xeex ko moom mi la koy bañ a xeex loo moom am na ko moom fi mu toog lay toog lépp di ko fekk si te li ñu ko koy indilee yàgg moom a ko bokk ñu xañ la ko moom jox ko ko ngi jóg di xeex sa wàll la bu ko xeex kooku kooku du sa kooku bëggu la xeex Macky Sall mooy xeex pour dund ku xeexul Macky Sall xeexuloo pour sa dund yell xeexuloo pour dund ndax Macky saa su xëyee mi ngi teg jéego bu lay xañ nga mën a dund yam ci loolu lay liggéey amul bis bu muy yeewu boo xam ne dana xalaat wala mu jëf loo xam ne day tax sa dund mën a ant yow mi may déglu amut lu koy safaan bi dong lay dox lu koy yàq waa kii boo jógul xeex ko jaayan jaay ko sa bakkan doo dund jaay ko sa bakkan jaay ko sa bakkan sa pas u sa kas màggat mu waxu bi daat nag fi jóg di waaraate di wax bu leen ko faale bu leen ko déglu ndax màggat mu waxu bi bu dee ab xalif la boo laalee kër maam wala baayam mu jóg taxaw nekk ab segg yuuxu saaga def lu ko neex tëkku la li may wax gis ngeen ko ba tey koo ci duur baaraam ci li fi maamam bàyyi li muy korkoral li muy dundee addiye yeeg taalibe yeeg xaalisu nguur gi koo ci duur baaraam nga dégg mu wax la loo xam ne danga xam ne lépp dëgg la luy tàkk tudd fay la lay wax waaye yow sa dund yow ñoru ko moom sa tekki ñoru ko sa am-am ñoru ko sa ndool ñoru ko sa booy dee yoonam néew ci ñoom seeni teraanga na dox moo xam ci nguur gi moo xam ci sëriñ si na seeni teraanga dox rek waaye yow mi nga xam ne yaa nekk ci diggante marto bi ak enclume bi ñuy door yow mi nekk ci digg bi yow mi ñuy nàmm yow yow yow mi nga xam yaay weñ bi marto bi dal ci sa kaw yow moom ñoom seen yoon nekku ci waaye moom mi yor marché bi dóor ci weñ gi ngir bëgg koo bu marché bi juumee ba dal ci baram bi da ngay dégg mu yuux ne wuy samanday ndey marto bi ñu lay dóor yow ngir di la nàmm ki la koy dóor bu bu juumee moom ba mu ba mu moy ba dal ci baram bi da koy dégg mu yuux day teg marto bi ci suuf ndax ci boppam la ko dóor waaye tànk mi ngi la koy dóor yow moom yoonam newu ci loolu mooy yenn sëriñ si ak politiciens yi lii mooy seen taxawaay yow nag yaay am sa fulla yaay yeewu amul sëriñ amul doomu diw amul sëtu diw amul mooy xalif bi amul sa yoon yónnewu ci sa àdduna ngay toppatoo ku ci ànd yow nga ànd ak moom ku la ki seetaan nga ba est-ce que li may wax leer na mu des nag li nga xam ne mooy conséquences yi nga xam ne moo am ci seen projet bi nga xam ne aji Sarr mi ñu war naan dañ ko kon dafa dañu condamné Ousmane Sonko ci li nga xam ne mooy corruption de la jeunesse comme corruption de jeunesse nga xam ne ay tappale la

ñu mën a àtte Ousmane Sonko ci tuuma yi yokkoon na ci ne am na benn chef d'accusation buñ ci def boo xam ne mu ne pratique corruptrice de jeunesse pratique corruptrice de jeunesse Ismaïla Madior Fall la mën a fen <laughs> moom français moom français bi sax da koy tourné nu ko neexee moom daal xam naa moom daal kii daal mën naa inventé kii daal xaw biir bi lu ci waaye mën daal yaa xam na biir bu xasaw fen rek ku mas a gis lu mel ni waaye la ci gën a waar mooy moom Ismaïla Madior Fall keroog bi ñu àttee le premier juin le deux wala le trois dafa dem ci télévision bu ñuy wax i media su ma juumul su ma juumee ngeen ñu laaj ko fa interroger ko mu tontu né juge bi wala procureur dafa def li ñu tuddee requalification maanaam dañoo dem ba ca biir ñu gis na xëy ne li ko doon toppee amul leneen moo am ñu jukki loolee ne lii moo am waaye du lee ñu daal di koy. utalaat aw turu bees la ñu jàpp ne moo am ñu utal ko aw turu bees te mooy lii ñu indi muy corruption de la jeunesse me na corruption de la jeunesse bi mi ngi jóge ci requalification des faits yi procureur bi xawma juge bi def Ismaïla Madior moo ko wax de bi ñu àttee ba ci ëllëg wala wala ñaari fan dem na ki leen benn télé wax ko fa waa léegi naka nga mën a waxee ci njàlbéen ne daan bi ñu daan Ousmane Sonko boo ko woon ci tuuma yi waaye juge bi moo ko requalifié Nous avons inventé indi ñu tek ci fukki fan nga ñëwaat ne juge d'instruction bi doon def enquête bi mo dexeñ ca xëta mu mujj wa jox juge bi ne ko Ousmane Sonko nañ ko pratique de la jeunesse maanaam Ismaël Madior Fall ci dafa dafa wax ba bopam mëno ñëw ne juge bi dafa def requalification nga ñëwaat ne juge d'instruction bi dafa dëxëñ ci biir ordonnance de renvoi bi benn chef d'accusation bu mu tuddee pratique corruptrice de la jeunesse lii lii naka la ko nit ku ña moo yor justice Sénégal mën a génnee ci aw làmmiñam ci ñaar ci ñaari wax yu wuute yoo xam ne seen diggante matul fukki fan ak juróom ci diggante fukki fan ak juróom wax nga fi ñaari wax yu bokkul ci benn àttekaay bu taxaw nga lay na lii moo tax ñu def ko nga dikkaat wax beneenu lay wu bukk la woow damay laaj ñaari wax yëpp moo ko waxoon qualification la wax pratique corruption de la jeunesse su fekkente ne li mu mujj wax te mooy juge bi moo ne nañu ko topp aussi ci pratique corruptrice de la jeunesse bu fekkente ne loola ma nga ci ordonnance ba Ismaïla Madior so wax bu mujj bi nga ne ma nga ci ordonnance ba te doonte nekku ci gis nañ ko génne nañ ko yëpp gis nañ ko dara newu ci même bu ci nekkoon bu nekkoon ci ordonnance waa lan moo tax da nga njëkkee génne gannaaw àtte bi nga ne corruptrice pratique nga ne corruption de la jeunesse bi

ordonnance la def bu fekkante ne woon ca biir ordonnance ba juge bi nga xam ne moo doon def instruction bi prévoir na faggu na corruption de la jeunesse ca biir waaw pourquoi kon bi ñu ñëwee tribunal di àtte ñu requalifier pourquoi ñu requalifier est-ce que déglu ngeen ma déglu ma de lan moo tax ñuy requalifier bu fekkante ne daan bi kay prévoir faggu nañ ko prévoir nañ ko pourquoi ñuy requalifier est-ce que dégg ngeen laaj bi may laaj est-ce que gis ngeen sew-sew bi may wax mbir day am wala mu ñàkk am su amee jarul ñu di ko wër jarul jarul di ko wër nee nga daan bi ñu ko daan fàggu woon nañ ko kon que jarul woon ñu koy ñu koy wër wër gi ñu koy wër nag mooy di requalifié di ko ko di ko ak fu ñu ko jaarale maanaam mbir mi am na wala amul boo amul dañ koy jéem a wuti mooy requalification soo amee kay jarul wuti jarul requalifié waaye ñaari wax yëpp la wax nee na mbir mi am na.

am yoo xam ne sujet yoo xam ne bu ñu ko laalee rek ngeen commencé dugal seen yooyu pour bëgg a saboter live mais on vous bloque kon xam ngeen ne Ismaïla Madior Fall day fen Amadou Ba day fen Antoine Diome day fen Sidiki Kaba góor jigéen day fen nee na c'est de la fanfaronnade waaye da ngay xool ji wax jàpp sénégalais yi boom rey leen tiim sénégalais yi di fen ñiy wax waxi CPI nga ne c'est de la fanfaronnade nag Sidiki Kaba yaa bon yaa bon yaa seytaane dafay góor jigéen Sidiki Kaba yaa bon léegi la lépp nag li ngeen ci jàng mooy la Ousmane Sonko ne woon dossier bi man pare naa ci dematuma tribunal wuy jiwuma seetiwuma kenn désobéissance civique lay def dematuma ba ma koy wax naan waaw day défier justice bi Ousmane Sonko patati patata Ousmane Sonko lu mu def xam na ko Ousmane Sonko lu mu def teg na ko ci xam-xam teg na ko ci dëgg teg na ko ci weeru ci yàlla gëm yàlla tegu ko ci benn sëriñ na ci yàlla yàlla ko teg te lu mu def yàlla fekk ci ko ci ndax tabia ba moo leer digganteem yàlla sikk sàkk amu ci gëm na ko wóolu na ko lépp lu mu jàpp ne dëgg la ci moom da cay dem ba jeex